أعوذ بالله من وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر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 ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi ba tey ci aljaami kitaabu salaat aljaami saxiix wal imaam albuxaari alayhi rahmat wa ridwaanul baari gisuñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu kafaaratul buzaaqi fil masjid buntu far gi nga xam ne moom lañuy far ak tuflit ci biir jàkka ji gisoon nañ ci xadis saydna anas ibn malik radiallahu taala anhu bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne albuzaaqu fi lmasjidi xatiatun wa kafaarat wa kafaaratuha tufli ci biir jàkka ji kooku ak njuumte gu rëy la maanaam eh, maanaam ak njuumte gu rëy la waaye far gi nga xamante ne moom lañuy ñuy far njuumte googu maanaam mooy bàkkaar boobu far giñ koy far moom mooy suul giñ koy suul gisoon nañ ci baabu daf ni nuxaamati fil masjid buntu suul gi ñuy suul xaaxtandiku ci biir jàkka ji waxoon nañ tamit li tax ñaari bunt yooyu ak li leen teqale gisoon nañ ci xadis saydna abu hurayrata bi radiallahu taala bi yenent bi sallallahu alayhi wa di wax naan bu kenn ci yéen dee julli ci biir julleem bu ku ku taxaw di julli ci yéen ida qaama ahadukum fi ila salaati falaa yabsuq amaama fa innama yunaaji llaha maadaama fi musallah wala an yaminihi fa inna an yaminihi malaka wal yabsuq an yasaarihi aw taxta qadamihi fa yadfinha bu fekkente dafa am kenn ci yéen ku taxaw ku taxaw ci di julli jëm ci julli bu mu tufli ci kanamam naka noonu Euh, bu ndax ndax ndax li ndax kat moom dafa nekk di déyaale boroomam subhaanahu wa taala fekk ngi ci jullikaayam boobu waaye nag bu mu tamit tufli ci ndeyjooram ndax ndeyjooram malaaka moo ca nekk waaye na tufli ci càmmoñam wala boog ci ronam te ron tànkam euh, euh, ci ronam wala boog ron tànkam maanaam te mooy tànk càmmoñ bi te mu suul ko loolu bokk na ci li nga xam ne waroon nañ ko ci gis tamit loolu day tegtale ne maanaam ak dummóoyu gu néew ci xibla loolu du yàq julli ngir ne nit ki bu fekkente ne dafay tufli faw day daal di du mooyu tuuti maanaam buy tufli ci nde ci càmmoñ bi beneen bi ci des moom mooy xar kanam gi du kon xar kanam bi moom moo tax ñuy wax loolu gisoon nañ teqantal bi ci boroom xam-xam yi waxoon rahmatullah alayhi ci diggante ni dënn bi la ak tànk yi wala boog tànk yi rek ci fuqaha u maliki yi rahmatullahi alayhim ne loolu moom moo war a jublu xibla bi beneen bi ci des moom mooy ne baa gisoon nañ ci baabun iza badarahul buzaaqu fal yaxuz bi tarafi saw bi bunt bi nga xamante ne mooy wax ne su fekkente ne tuflit dafa njëkkante ak nit ki kon na daal di koy jël maanaam na ko daal di def rek ci na ko daal di teeroo ci catu li nga xam ne moom mooy catu yërëm bi maanaam catu mbalaanam bi teeroo ko ko musal nañ ci xadis na anas ibnu malik radiallahu taala mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu gisee tuflit ci xibla bi mu daal koy far waaye ñu gis tamit ci xar kanamam mu ñu gis ci ak ak sibeel gis ne loolu dafa dafa tar ci moom maanaam lu ko metti la ginnaaw ji mu daal di wax li nga xamante ne moom mooy li mu waxoon ci xadis ah, bi ñu romb topp mu daal di jël loxom manam li nga xam te moom mooy manteau bi mu jël loxo maanaam mu tufli ci dal ni manam dal koy dajale dal ni aw yafalu hakada wala mu def ni gisoon nañ tamit baabu imam an nas fi as salat wa al qibla buntu war gi nga xamante ak xupp gi nga xamante mom la imam bi warona a nit ñi ci ngir xirtal leen ci ñuy matal seeni julli manam julli nak manam moy mooy rukkoo ak sujjóot ak lu melni ki non ak tari yi nga xamante ne moom la ñu war a tari ak lépp loo xamante ne dafa aju ci julli gi ñu war koo matal ak tudd gi nga xamante ne moom lay war a tuddaale xibla bi ngir am solo gi mu am solo ci biir julli gi indi woon nañ ci xadis indi na ci xadis saydna abu hurayrata radiallahu ta anhu bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne hal tarawna qiblati haahuna fa wallahi maa yaxfa alayya xushuucukum wala rukuucukum inni la raakum min warai zahri Euh, ak xadis bi nga xam maanaam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan gis ngeen euh, sama xibla bi euh, waat naa ci yàlla ne amul dara loo xamante ne réer na mu ci yéen maanaam du ci seen toroxlu bu seen rokoo mooma réer ndax man ni ma leen di gisee ci sama kanam noonu laa leen di gisee ci sama gannaaw loolu mi ngi koy gën a dëgëral maanaam boobu mooy comme ci xadis sayidna anas bi radiallahu taala anhu mu yeggalee ko ci wax jooju ne inni la araakum maanaam maa ngi leen di gis ci seen sama ginnaaw ci kem ni nga xam ne noonu laa leen di gisee nii ndax booba mu ngi ci kaw mimbar bi di wax ak ñoom ci boobu maanaam <coughs> léegi nag insha allahu taala ñu war a gis beneen bunt mu ne baabun hal yuqaalu masjidu bani fulaan baabun bunta ngi hal yuqaalu ndax def na wax masjidu jàkkay bani fulaan eh, eh, doomi diw doomi ñoom diw maanaam ndax def na wax jàkka yi ñoom sàng ñoom diw sàngam ci xadis bi banu Zurayq la wax waaye maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala li nga xamante ne moom la ci namm fii mooy masalan askanale gi nga xamante ne moom la ñuy askanalee jàkka ña ko tabax wala ñu fay jullee masalan jàkka joo xamante ne euh, waa boron ñoo fay jullee ñu naan jàkkay boron ja wala boog jàkka joo xamante ne masalan Euh, ña ko tabax moom mooy maanaam par exemple ñu am diw sàngam moo ko tabax ñu naan jàkkay diw jàkkay diw jë maanaam ak xeet yu mel noonu ndax loolu dagan na waaw wala déet loolu nag boo gisee li tax imaam al-Buxaari rahimahullahu taala indi ko moom mooy ne alquran daf ni wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada li wér moom mooy jàkka yi buur yàlla moom moo leen moom kon nag bu leen bu bokkaale ak yàlla dara ci jàkka yi loolu mom motax te loolu nak bu boba loolu comme ku mel imam Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullah mom daf ci am deg deg manam loolu mom motax mom mu jàpp ne di wax loolu daganut maanaam daganul nga nan jakay diw sàngam wala jakay ñoom diw wala yu mel noonu waaye wuuteeg li nga xamantene mom la jumhur wala jamaahir ulama rahmatullah alayhim wa te mom moy moy mazhabu tam mbolim ñent ngir yi rahmatullah alayhim manam seen borom xam-xam yi rahmatullah alayhim saxal nañ ne loola dara ku ci dagan nañu ne jakkay ñoom diw masalan jakkay tu couleur yi wala jakkay soose yi loolu dagan na dagan na tamit ñu ne masalan jakkay yi manam gis nga jakkay turki moy bo deme demee nga fofu bo deme amna jakkay turki fofu la ne loolu dara ku ci manam agit lu deme ne ke manam masalan ñu ne jakkay ji jak moy jakkay tiijaan wala jakkay mouride waye waaye loolu ci charte mu baña nek lo xamantene masalan dañ koy wax ngir teqale maanaam ngir teqale euh, rit yi maanaam naan masalan jàkkee tiijaan moom ñoom nii la ñuy doxale bu wuute naag jàkkee murit ci loo xamante ne ñoom ñëpp ñoo ci war a ànd bokk ko lu demee nekk julli gu normal julli gu jaadu ak yu mel noonu wala ñu naan jàkkee ibaadu yi ak yu mel noonu loolu dana dagan maadaama ngir identifier nit ki rek la wala boog ngir ngir tamit maadaama dañ koy wax ngir rek euh, wax ne Ah, jàkka jooju kat ñoom diw sàngam ñoo ko tabax maanaam xam nañ ni jàkk ji kat ña ko tabax ñooy ibaadu yi wala boog jàkk ji murid ko tabax wala jàkk ji xaadir yee ko tabax wala jàkk ji tijaar yi ñoo ko tabax waaye boo fekkente ne nag dañ koy wax ngir tàqale jullit ñi maanaam ngir ne tàqale leen ne kat foofu ku dulub tiijaan wala ku dulub ibaadu moom du fa jullee wala bu fa jullee itam daf fay xat wala yu noonu loolu moom bu boobaa dootul nekk te loo xamante ne lu dagan lay doon waaye fa muy dagane rek mooy euh, lii nga xamante ne te bu boobaa day dugg ci xamiyatul jaahiliya bi alquran wax te euh, euh, loolu xamiya boobu nga xam ne mooy par parparloo googu nga xamante ne yëfi kàccoor yi la te yëfi yëfi jaahili la maanaam mooy jamonoy ceddo jamono yooyu nga xam ne laataa lislaam di ñëw jamono jooju maanaam riir bu métti gi booba seen xeeti xalaatin mooy ñun waa diw ñun ñoom ñoo ñoo far ak diw ñun ñoo far fee te alquran bi mu koy wax moom mooy ñi nga xamante ne ñoo doon wax mu muhajirin ak yaalil ansaar maanaam ki nga xamante ne ndax mooy ansaar bi muhajiri bi bi ñu wuutee bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu amee problème dégg nga muhajiri bi këdd ansaar bi waa ji daal ne euh, euh, euh, ki ma bokk ansaar bi këdd ansaar yi bi këdd muhajiri bi mu ne yaalil mu mu ne yaalil mu eh waaye muhajirin ne ñëw leen jàppale ma maanaam ansaar bi tamit ne yaalil ansaar eh ansaar yi ñëw leen jàppale ma maanaam loolu. manam andak ne bat yoy bat alquran la manam muhaadiruna ak bat alquran la te ay tijani yi muriti qaadiri yi duñu bat alquran manam su fekente ne yi nga xamantene bat alquran la ak yi nga xamantene ñom ñoy classification manam di tekkale bi gëna rafet bi mëna am te mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam moko tekkale sahaba bi radiyallahu taala anhum borom bi sax moko def innakum mom mi nga xamantene as sabiquna al awwalun min al muhaajiriina wal ansaar والذين tabaauhum باحسان رضي الله عنهم لول القران moo ko نيغا تي با te ba pare daf يالا ñooñu نالين تي لول نونو لي مي تيكي بو فكنتي ني bu fekkente ne nga xamne ne ñooñu sax yàlla may ngërëmam ñoom la yàlla mayul ñuy woote woo naan ñun diw maanaam ngir teqale ne dañuy différencier wu ak ñi ci des maanaam loolu segam ñoom la ko ba nga xamante dafa tuddee xamiya boobu tuddee ko xamiyatul jaahiliya maanaam par rapport ak ñi nga xam ne mooy jamonoy ceddo yi maanaam loolu kon waxuma laa nag bu ñu ñëwee naan ay jàkkay murid yi jàkkay tiijaan yi jàkkay xaadar yi jàkkay bu fekkente ne euh, identifier moo tax te loolu lu ci ëpp nag noonu lay demee moom ngir identifier kese lool mooy li ëpp li tax ñu koy wax waaye bu demee ba yegg ci niveau boo xamante ne maanaam day day day dafay mel ni ñunu ñunu neen la ku bokkul ci ñun bu fi ñëw julli see boo nga toog sinon boo ñëwee dañ lay xatal ba nga jóge fi maanaam bu xësee ba dugg ci cadre boobu day daal di mujj a nekk loo xamante ne dafa xaraam loolu moom mooy li nga xam ne moom la euh, moom la bunt bii di wax imam al Buxaari rahimahullahu taala indi ko maanaam daal di koy indi ci anamuk goo xamante ne anamuk laaj la donte li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci ñu njëkk ñi ñu mujj ñi dañoo jàpp ne dafa dagan ànd ak ne mboolem ngir yi ñeenti ngir yi ñoom ñëpp dàkk na jàppoon jàpp ànd nañ ci ne loola dagan na ànd ak ne. Euh, ñiñ ci xam ñi ñoo wuute amaan na al imam ibrahim ibn yazid an-naxa'i rahimahullahu dong la al ak loolu yëpp imam al buxaari rahimahullahu taala daal di koy indee ci anamu laat ngir wane ni loola am na teyit maanaam ne am na ñuy wax loolu ku mel ne al imam ibrahim ibn yazid an-naxa'i rahimahullah waaye tamit leeral ne alquran baat bële wax ne jàkka yi yàllaa ko moom bu leen ko wootee di ko jëme ci keneen maanaam di ko boole ñeneen loolu Euh, bu leen ko jàppee ni maanaam baat boobu bu ko kenn jàppee à la noonu rek jàpp ne bu ñu waxee sax ne jàkkee ñoom diw wala jàkkee diw ja rek loola boobaa dëgg dugg nga ci lu xaram déedéet loolu nag euh, maanaam masala la boo xamante ne mat naa bàyyi xel euh, te mbir la moo xamante ne mat nay leeral te mat naa xam mu ne qaala bil isnaadil muttasil fii awwal kitaab ilay xaddasanaa abdullahi ibnu yusuf te moom mooy at-Tinnisi آه، موم ابو محمد الكلاعي المصري الدمشقي الاصل رحمه الله تعالى من ген ادنا 218 اني غيناو غدا يننتي صلى الله عليه واله وسلم دا خامتاني لو اوب تي امام البخاري رحمه الله تعالى دي صلوات موم موم موي دا فاي صلوات موم تي بو فكي دي صلو مو وقت بو امام مالك رحمه الله محمد عبد الله بن يوسف التنيسي امام البخاري رحمه الله تعالى رك موم مو صلوات te moom moo soloo ci moom lu baree bari amma ñeneen ñi soloo ci moom yëpp lu néew lañ soloo ci moom ku mel ne imam Abu Dawud at-Tirmidhi ak an-Nasa'i rahmatullahi alayhim te ñoom li ñu soloo ci moom bëriwut waaye te ku ñu bu ñu solowee moom it dafa am ku dox diggante kon euh, Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi waa ashaabu kutubu sitta ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ci moom rahmatullahi alayhim ba mu des imaamu Muslim ak imam Ibn Maaja rahmatullahi alal jamii من قال أخبرنا خبرنا مالك إمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الحميري الأصبحي الحميري رحمه الله تعالى مي إمام دار الهجرة بيها من تنمو موي كم نينكو خمي موي بورم خم خم مدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام teggin gu mak la amon ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam magal bi nga xamantene mom lako magalon ak ciir bu reuy bi nga xamantene mom lako joxone moo tax mu ne woon moom tegginam ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ëppante na ak muy sol dàll di dox biir Madina ngir màggal bi mu màggal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala boobu muy dox muy war kaw daaba ci biir Madinatul Munawwara maanaam te ak maanaam yitte gi nga xamante ne moom la yitte woo woon xam-xamit màgg na màggaay goo xamante ne tax na comme ni ko al imam al qaadi Iyaad rahimahullahu taala nettalee ci tartibul madaarib ku mel ne al imam al xaafis ibn abdul bar ak ñeneen rahmatullah alayhim tamit toxaloon nañ ko ci moom maanaam ne néeg ba mu amoon benn ngir bëgg xam-xam taxoon na ba mu jaayee alalam yëpp ba amatul lenn lu mu jaay téye bu néeg bi la jaay maanaam plafond wu néeg bi ngir mën ci wut ay téere maanaam loolu day wane tamit margaayu euh, dëgg-dëgg yitte <laughs> ak li nga xamante ne moom la ko xam-xam jaraloon rahimahullahu taala euh, ak it rigueur bu màgg bi nga xamante ne moom la am loolu daanaka jarul ñu ci dellu siwaat mi ngi gane àdduna 94 wala 93e année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna 179e année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom amaan na moom mooy ki nga xamante ne moom moo njëkk bind téere boo xamante ne dañ koo nose ci ak euh, ci euh, nose ko ci ay buntu xadis te sëriñam bi nga xamante ne te sëriñam moom la moo njëkk mooy imam ibnu shihab az-zuhri mooy ki njëkk bind téere bo xamantene ci hadith la rek ci lu ñu joyal maanaam comme ni ko alimam assiyuti waxe rahimahullahu taala awwal awalu jaamici alxadisi wal athar ibn shihab amir lahu umar wa awalu jaamici bi wa awwal al-jami' lil abwab jama'atun fi lasri du qtiraabi kabnu jurayjin wa hushaymin malik wa ma'mar wa walad al-mubarak manam nga xamantene ñoo ñooñu ko ñom ñoy ñi nga xamne ñom ñoko ñoo rek mu daal di euh, waxte mu ne mu ne kon axbarana malik an naafi' te moom mooy moom sayyidina naafi' rahimahullahu taala di mawla abdullah ibn umar ibn alxataabi radiallahu taala anhuma dakkantalam nekkoon abu abdullah comme comme bi nga xam ne mooy imaamu malik rahimahullah nekk ko xamante ne imaamu malik lu ëpp li mu jëlee ci xadis ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci imaam naafi bi maanaam moom bokk ci ñum gënoon a takkoon ñi nga xamante ne ñoom la gënoon a takkool ñeenti sëriñ lañ ñooñu la gënoon a takkool moom mooy imam euh, euh, rabia ibnu abi abdurrahman ak ki nga xam ne moom mooy ibnu hurmus ñoom ñaar rahmatullah ci la gën a jëlee ci ñoom fiq ñoom rigueur fiq ci ñooñu la ko gën a jëlee amma xadis ñu ngi ko jëlee na ko ci ñu bëri niki noonu fiq tamit waaye ñii ñooy ñi gën a central ci ay sëriñam waaye ñaar ñi nga xam ne ñoo gën a central aussi ci sëriñam yi moom mooy imam naafi bi rahimahullah ak ki nga xamantene mom moy benen moy imam ibn shihab az-zuhri rahimahullah amma bu dee ci walu alquran ci nafi'a tamit benen nafi'a bi moy ki nga xamantene mom la qalul ak warsh jange ci ñom ba tax ñu nan qira warsh nga xamne muñ ko jëlee ci naafia boobu naafia boobu jëmmi nafi'a bobu mom moy serignu imam malik tam ci alquran manam bu fekkente ne am wàllu tasawuf tamit jëlee nako ci ñi ñu wax ñëpp waaye tamit bokku na ci ñi ko gën a ñi ko gën a marqué ci wàllu tasawuf moom mooy Jaafar Sadiq nga xamante ne moom mooy doomu Muhammad al Baqir moom mi nga xamante ne moom mooy doomu Ali Zeyn al Abidin bi nga xamante ne moom mooy doomu Xuseyn Shahid doomu yen di di doomu Seydina Ali radiyallahu taala anhum maanaam nga xam ne mooy doomu Sayyidat Fatima di doomu yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam kooku ñooñu ci ci moom la gën a ñoom la gën a ñii ñooy sëriñum yu central yi donte am na yeneen i sëriñ comme ni ñu koy gisee tamit ci xadiis yi ñu bëri ñoo xamante ne day soloowee ci ñoom rahmatullahi alal jamii naafi ab yi kon euh, bokk na comme ni ñu ko gisee woon ne mawla maanaam sayyidna abd abdullah ibn omar ibn alxataab radiallahu taala anhu moo ko goreel mu nekk koo xamante ne ku màggoon la ci moom te ku mu bëggoon la ku mu màggal la teet mu nek ko xamantene borom xam-xam yu rahmatullah alayhi magal nañ ko ci anam go xamantene li nga xamantene bu ñuy lim hadith yi gëna wér ñuy wax asahul asanid li ci gëna a siiw mooy wax bi imam al bukhari rahimahullahu taala wax ne cyallale gi gëna wér ci mbolam kaw suuf ci suuf si yépp cyallale gi moy imam malik bu jëlé ci nafi' mu jëlé ci abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu taala mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam lool moy cyallale gi gëna a dëgër ci cyallale yi ci luñu doyal lool nak Euh, day wane kon màggaayu Naafi' bi rahimahullahu taala ba Saalim doomu Seydina Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma ne ñun sax c'est moom mii fi mu toll maanaam euh, suñu bàyyi sax moom moo ñu ci ëpp cër te loolu te mooy Seydina Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma te gis nañ ni ñun barke bu rëy la ci suñu kër moom Naafi' te loolu noonu boo gisee li ko ko may ànd ak ne jaam la fa woon bu ñu jàppoon rek indi ko ci kër gi. maanaam ah, ànd ak loolu bi ki Seydina Abdullah ibn Omar ibn Xattaab radiyallahu taala anhuma gisee ni muy jaamoo yàlla ak ni mu selleek ni mu baaxe mu daal di koy goreel te loolu ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yooyu yëpp tax na maanaam ba war maanaam nga gis ne ak mbaax ak ragal yàlla ak xam-xam ak sàkku ko ak dëggu ci maanaam li nga xamante ne foofu la mën a yëkkitee nit ba tey fi mu toll kenn du jàng xadis maanaam di yittewoo xam-xamu xadis am ci benn baas bu ndaw base bi lu mu tuuti lu dul di nga xam imam Naafi bi rahimahullah maanaam loolu tamit day wane màggaayam mi ngi génn àdduna cent sixième année ginnaaw gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xadisa mi ñu ngi ci kutubu sitta nga naan abdullahi ibnu omar ibnu alxataabi radiallahu taala anhuma euh, dégg nga muy abu abdurahman di dàqantalam moom mi ngi génn àdduna soixante-treizième année ginnaaw gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam al asari manam nekkon ku daan topp jeexitalu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci zahir ak ci baatin nekk koo xamante ne tamit yenent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam ne abdullahi rajulun saalih law kaana yusalli bil layli abdullahi day moom nit ku sell la fekk boobu dafa am gént bu mu géntoon ñëw nettali ko sayyidat hafsa radiyallahu anha mu ñëw nettali ko ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko déggee daal ne ah abdullahi daal nit ku baax la nit ku sell la waaye ay bu doon nag dinaa bu doon bu ci boole woon dinaa fi la guddi moo tax ba ba mu ko ko waxee ne ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam lii la wax ci sa ci sa gént gi moom foofu la booba bàyyeetul naa fi la guddi maanaam bopp bés mu ne ko yow abdullah laa takun ka yu kaana yusalli bil layli summa taraka yow abdullah bul mel ni diw sàngam de moom te da daan naa fi la guddi ba mu yàgg mu jekki-jekki bàyyi ko maanaam loolu ah, kon di wane maanaam eh, ne eh, abdullah ibnu omar ibnu alxataabi radiallahu taala anhuma nga xamante ne lu baree bari ci jeexital yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko solo te yittewoo gi mu yittewoo sew sew yi moo tax imam al buxaari rahimahullah ay ji ay taaliqaat maanaam mu am solo ci yenn masala yu fondamental yi gisoon nañ ko ci kitaabul iman ak ci kitaabul ilmi am na mbir yoo xamante ne ci seydna abdullah ibnu omar la koy indee te dañ ko gis ci wàllu julli tamit insha allahu taala rawatina ci xadis bi nga xamante ne moom la doon wax naan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon wax naan bu leen di goor comme gëléem bu leen jiital seen seen seen maanaam bu leen jiital loxo yi ah, bu leen bu leen jiital loxo yi ngeen ah, teg doog a teg tànk yi boo leen dee dem ci sujjóot waaye mu ne waaye nag abdullah ibnu omar de radiyallahu anhu nii la doon def maanaam muy wax ni ko abdullah ibnu omar déggi maanaam mooy ne ndax xam ngeen ni gëléem tànk yi ah, mooy animaux yi animaux yi tànk yi ñoom ñooy nekk ci kanam euh, loxo yi ñooy nekk ci ginnaaw maanaam kon loolu moom moo tax maanaam mais moo tax Abdullah ibnu Omar da daan teg ay loxoom ba noppi doog a teg tànk yi maanaam nga gis ne mu firee ko ni kon maanaam mu bëgg la junj ne la li Abdullah ibnu Omar mi nga xam ne radiyallahu anhu ci saxaaba yi bokk na wala bokk moo ci gënoon a ràññeekoo ci di topp tànk yeneen bi sallallahu alayhi wa maanaam ci sew sew yi gën a sew. moom moo ci gënoon a ràññeeku moom nii la doxalee maanaam nii la doxalee mooy kon nii la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bëggoon wax ne nañ ko def waaye loolu daan ci ñëw ak wuute borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci boobu masala liñ bëggoon a wax rek moom mooy sayyidna abdallah ibnu amar ibnu alxataab radiallahu taala anhuma dafa nekkoon koo xamante ne dafa ràññeeku woon ci di topp tànk yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir ak ci biti ba nga xamante ne sax fu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mës a moom bu ko gisee day daal di xam bërëb ba saa yu fa rombee dana taxaw julli même bu yàkkamtee bu jar dana ko jaral xaar waaye dana julli niki noonu bu yenent bi sallallahu alayhi wasallam rombee fenn tuur ndox moom lu mu yàkkamti dana fa tuur ndox bala moo continue bu fa kooku nag xam nga koo xamante ne wala mu nelaw fa yenent bi sallallahu alayhi wasallam mës a nelaw benn place mu xam bara place boobu fu lu mu yàkkamti dana tëdd ba nelaw doo ko jóg dem ak lu mu ko mën a yàqal garaawul na def li yenent bi def sallallahu alayhi wa sallam manam loolu mom manam ku mel nonu nak du dina am mbir yu bari yo xamantene du ko mënu koo réeri maanaam segam yi nga xamne ñoy yi nga xamne yoyu yu lay def manam te te te du ay lo xamne manam jaamu yalla yi kese kese kese la am manam lolu loolu nañ ni sax ñu bari bari da ngay deg dañ japp rek ne lolu aada la rek manam mais dafa bëgg na nelaw nelaw la quoi voilà hein voilà dafa dem ba fenn bëgg tour ndox tour ndox après mais mom xam bi mu xam ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam du def dara ci caaxaan lépp lu mu def rek loolu secret yàlla bu mag a ngi ci ginnaaw moo tax moom lu yenent bi def sallallahu alayhi ak place ba mu ko defee moom bu fa loolu lay def voilà après nit ñi dinañ kaas wala da yàkkamti nañu wala lii moom loolu lay def après doo continuer yoonam loolu nag day wane màggaayam ak mi nga xamante ne noonu la jeexe ci yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax mu bëri lool lu nga xamante ne moom tamit comme gone la woon tamit jamono yeneen bi sallallahu alayhi mu bëri lu mu toxalee ci moom radiyallahu taala an moom mi ngi euh, gane àdduna comme ni ko gisee juróom maanaam euh, euh, maanaam bi mu amee juróomi at maanaam ci juróom benn la maanaam kon moom mi ngi gane àdduna at bi tegu ci atu révélation bi maanaam atu waxyu bi ah at boobu juróom maanaam boobu la gane àdduna non non moins déedéet moins moins moins moins douze non moins douze la mooy douze la gane àdduna ndax juróom-benneelu benn at bi bi bàyyam di tuub ci lu tuubaale dugg ci lislaam te fekk boobu moom mi ngi am juróomi at voilà euh, dégg nga comme niñ ko gisee woon xare Uhud dafa dañ koo jàppe woon gone waaye ndax moom ba mu ñëwee maanaam at ba ca moom dafa dem fekkee na ko euh, moom euh, mu ngi solo deux mille six cent trente xadis ci ay xadis yu ti bi sallallahu alayhi wa sallam imaam al Buxaari ak imaam Muslim rahmatullahi alayhima dëppoo nañ ci solo 168 ci ay xadisam imam al buxaari rahimahullahu taala moom dong wéetoo na ci 81 xadis imam muslim wéetoo ci 31 xadis ci ay xadis saydna abdullah ibnu omar ibn alxataabi radiallahu taala anhuma càllale gii nag ci jëmmi càllale gi ñëwoon na ci xadis 406 numéro 406 bi xaj càllale gi ak bii ak boobu benn la mu nekk ci moo tax ñëw ci asaxul asanid dégg nga آه، من أن من من كن أن رسول الله أن ولي الله صلى الله عليه وسلم سابق دفع آه، جيت دفع آه، سابق دفع روان تل دفع روان تلو ما نام دفع موي كورس كورس يعني هم نلني أرگانيزه ما نام دفع أرگانيزه كورس ما نام موي دفع دفع روان تلو بين الخيل تي دقنتي فس التي يعني هم نتنا أدمرات ñoom la ñu yafaloon ba denc leen ndax a uddumirat mooy lan mooy dañ leen a yafal ba pare dañ leen di yafal ba ñu ba ñu duuf boobu après nag ñu daal leen di bàyyi duñ leen maanaam nga xam ne dañuy am euh, dañuy duuf maanaam day am graisse bu bari mag rëy léegi nag ñu daal leen di jox di leen jox xeeti lekk goo xamante ne du am maanaam day reesal euh, graisse gi kese ba pare bàyyi leen nag ak dëgëraayu doole gi maanaam loolu moom mooy uddumirat maanaam loolu. 40 jours lañ leen di jox nag nga xamante ne lekk gi ñuy lekk nag dañuy lépp luy tax mu am graisse dañ koy dindi ci lekk gi fekk bu ko defee ñu am doole gi rek mooy des ci ñoom waaye graisse gi day deñ loolu la leen di defal léegi nag loolu nga xamante ne moom lañ leen defaloon ñeneen xafiya fële ca euh, xafiya bërëb la boo xamante ne maanaam dafa jege madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam loolu kon bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy xame mooy ne Euh, benn rawante fas dagan na waaye loolu daañ ci gën a ñëw insha allahu taala ci beneen mbir maanaam boo xamante ne bu ñu paree ci lañ koy gis loolu mooy bu njëkk bi ñaareel bi ci des moom mooy ne euh, yafal maanaam fas ngir njariñ wala ab dàbba ngir njariñ goo xamante ne mën nga koo ci àjjale loola tamit daggan na maanaam te loolu tamit daanaka maanaam def koy def koy sax bàyyi xel loolu muy ñaar ñetteel bi nga xamante ne moom lañ am moom mooy moom moom lañ ciy jànge moom mooy ne euh, euh, bu ñu leen euh, maanaam mbugal maanaam teg métit daal maanaam teg métit ab rab ab maanaam ab rab ak ndundit maanaam animal loola dagal na fu fekkente ne mbugal taxu taxu koo jóg maanaam ngir ne xañ gi leen di xañ masalan yenn ndox yi mbir yu ndox yi nga xamante ne day tax graisse gi di di deñ loolu noonu di leen jox ñuy lekk kese mais duñ leen jox ñu naan jamono jooju noonu loolu xam ngeen ni dina metti ci fas wi waaye nag loola day tax maanaam graisse gi deñ graisse gi mën a deñ euh, te loolu nag moom mooy tax maanaam loolu moom mooy euh, euh, kon dañ leen a dafa mel ni dañ leen a métital te métital googu waaye nag njariñ moo tax waaye du mbugal moom moo tax comme ni nga xamante ne noonu la daganee la ñu métital nit fekk mbu maanaam du mbugal ko moom moo tax lu demee nekk comme masalan koo xamante ne dañ koy xarfal ku ñuy xarfal léeg-léeg dina am ak métit gu muy yëg Euh, xëy na jamono ji la tane waaye jamono ji weesu euh, daan naan daan na metti yenn xeetu metti ni mais loolu da du mbugal ko moom moo tax waaye lu njariñ la goo xamante ne ginnaaw gi day daal di dellu si ak yu mel noonu loolu kon moom mooy tax maanaam mu ne waaye nag euh, wa wa ama wa ama wa amaduha fi nga xamante ne moom la dem ba fa ñu fañ jëmoon mooy fi nga xam ne moom mooy maanaam ñoom lañ doon rawante di rawante foofa te ma nga xam ne bu ñu demee ba foofu la ñuy teere ji mooy saniyatul wadaa maanaam saniyatul wadaa moom mooy euh, euh, amat amat moom mooy maanaam mooy champ bi bi ñuy rawantee fi ñuy rawantee bërëb bi ñuy rawantee euh, te moom mooy comme arène bi mu naan arène bi wala champ de course voilà bi nga xam ne moom la ñu amoon moom mooy saniyatul wadaa saniyatul wadaa maanaam mooy aw mbedd mi nga xamante ne moom mooy dem ba ci xuru xur gi nga xam ne waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu bu ñu daan gunge nit moo tax ñu tuddee ko sanniyatul wadaa ndax wadaa mooy ak tàggoo maanaam buñ daan gungee nit ak gan bu ñëwaan seet si wala boo kenn di tukki bu ñu koy gunge dañ koy gunge ba am na benn foo xam ne voilà nee na ah nañ yem fii nag waaw kon xam naa ñu ngi yem fii maanaam foofu moom moo tudd sanniyatul wadaa maanaam yoon woo foofu nag la foofu la arène bi nekkoon maanaam foofu la champ de bi. ku kursu ba foofu la nekkoon euh, léegi nag euh, moo tax sànniyatul wadaa bi ci boo côté Tabuk la nekke loolu moom moo tax ku mel ne al imam ibnul qayyim rahimahullah ak ñeneen daal di wax ne baat boobu ñuy wax ne yenent bi sallallahu alayhi dañ ko doon teeroo madina maanaam di ko teeroo wayu tala al badru alayna min sanniyatil wadaa maanaam bi maanaam euh, loolu du woon bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw madina déedéet parce que nekkul côté boobu sanniyatul wadaa beneen wàll gi la nekk kon yanuwul maanaam ñu ne bi yenent bi di ñëw sallallahu alayhi wa moom lañ ko teeroo loolu moom moo tax am na ñuy masalat di daganal musique yi wala yu mel noonu naan parce que yenent bi moom lañ ko doon teeroo tala albadru alayna min sanniyatul wadaa eh, di wax yooyu fekk sanniyatul wadaa nekkul foofu sax maanaam kon loolu yëpp day daal di discrédité totalement maanaam euh, euh, wax jooju bu boobaa loolu tamit euh, lu mat a bàyyi xel la maanaam kon <laughs> Euh, euh, mu ne loolu tamit dañ ci xamee ne maanaam kon ak tukki tam ak kii rawante bu mel loolu tamit dañ ko war a wutal bërëb bu muy am euh, beneen bi ci des moom mooy kon mbir yi mbir xee xeetu sport la boo xamante ne bu dagan la moom mooy dawal dawal fas maanaam dawal fas te loolu li tax moom mooy waajal gi nga xamante ne moom la ñuy waajal fas yi ngir ñu mën a am kattan ngir ñu mën a am doole ngir tamit nit ki comme que buy xare dañuy dañuy soxla xar fas yi loolu moom comme le alquran wax rek wa addu lahum mastataatum min ribatil khayr min min euh euh wa wa addu lahum euh naka la wa addu lahum mastataatum dinaan wa min ribatil khayr li turhibuunahum wa turhibuuna bihi wallah euh manam na ngeen len waajalal lolen man maanaam looleen man ci ngànnaay maanaam yéefir yi seen noonu waajalal leen looleen man ci ngànnaay ak ci ay fas yoo xamante ne dañu leen di defar bu baax a baax maanaam ngeen wugg leen bu baax ba nga xamante ne yafal leen bañ ba ñu bañu ba ñu am doole bu baax bu ko defee ngeen leen ciy tiital di ci tiitalaale noonu yàlla yi maanaam loolu euh, maanaam mooy mooy lan mooy préparer wu leen ci armement parce que soo leen ko amul dañ leen di nokkati loolu moom mooy li nga xamante ne képp ku ne la bul xeex xeex baaxul lislaam waxul xeex képp ku la ko wax moom ma ngay waajal ay armam te saa yu ko neexee lay dem xeexi ku la ko wax rek loolu lay def kon nag yow waajal la leen parce que moo tax di gaa yi bàyyee loolu moo ñu leen di noggatu saa su ne fi mu toll am na réew yoo xam ne kenn ñemewu leen a noggatu coolee fi nekk rek dañ naan waaye xam nga gaa yi dañu waaru dinañ leen diaboliser wax mais doo dégg kenn xalaat maanaam fukki xelam xalaat ne day jël ay armem di ay bombam naan dañuy dóor foofu lu demee nekk Russie lu demee nekk Corée du Nord lu demee nekk feneen yooyu yëpp amul kenn ku ci xelam maanaam junniy xelam sax munte bokk ba dajale dajale ba xalaat ne xaaral ma dem duma ji leen loolu kenn du ko xalaat lu tax parce que dañoo waajal yor seen i gànnaay loolu nag bu ko jullit ñi bàyyee te yeneen bi waxoon na leen ko de sallallahu alayhi wa sallam te hadis sidna Abdullah ibn Umar bii la radiyallahu taala anhu moom bis boo leen bàyyee loolu bu boobaa yàlla dana xërtal ci seen kaw ay noon seeni noonu ba pare ak torox tànge goo xamante ne du jug ci yéen feet delluwaatoo leen ci seen diine maanaam loolu euh, te mooy mu ngi tàmbalee ida euh, euh, ida baayatum bil bil bil ayna moo leen boo leen saa yoo leen xamante ne da ngeen di def di jaay di jaay njaay bi nga xam ne moom lañuy ñu tuddee ayna maanaam mooy xeetu suul bukki su suuli bukki xeet yooyu noonu bis boo leen ko tàmbalee muy benn ñaareel bi ci des maanaam ay na mooy lan mooy tey damay jël benn matériel maanaam mu ñëw jënd ko ci yow ma jëndee ko ci yow benn njëg ba pare dem jëlaat jëmmi matériel bi beneen yoon ñëw indilaatal la ko jaayaat la ko ba pare jaayaalate ko njëg bu bokkut ak njëg bi mu ko jëndee woon wala boog ma def ko ay pièces détaché ko ñëw jaayaat la ko ci njëg boo xam ne mooy ëpp li nga xam ne moom laa ko jëndee woon wala bu ko gën a tuuti loolu moom mooy bay obil eena mooy eena loolu moom maanaam lu tax parce que day mel ni tey fi mu toll kaas bi bu ma ñëwee jënd ko nga ne ñaata la ma ne la si nga ni ma 5 euros ma ñëw jox la 5 euros ñu dem ba ci jëmbi jamono ma ne la kaas ba ma jëndoon laa bëgg nga jëndaat laa nga jaayaat ma ko ma la ñaata nga waa bii man moom nag bii faa moom 6 euros laa koy jaayee loolu dafa xaram parce que lu tax parce que day mel ni kaas bi maanaam amul solo day mel ni dama laa jox 5 euros nga jox ma 6 euros loolu lay nuróol loolu mu ne bis boo leen boo leen di commencer di def loolu. waktafaytum bi zar'i ba bare ngeen di doylo mbay kesse mbay rek ngeen doylo ko wa taraktumul jihaada ngeen bàyyi xeex han mune yàlla sallallahu alaykum aduwakum te yàlla da leen di kirtal ci sen ay non mune ba bare wala wa zillat ak toroxtaange hatta ta'udu ila ila dinikum ba kero ngeen di delu wat ci sen diini loolu moom mooy li xew jamono ji moom loolu yaakaar naa ne ñetti nit ñu xellu du ñu wuutee ci ne ye ci ne li dal jullit ñi loolu la loolu kon euh, léegi kon boobaat dañ ciy jàngee loolu beneen bi nga xamante ne moom lañ ciy jàngee itam mooy ne euh, mooy mooy mooy mooy ne tamit kon du rek fas yi maanaam ñoo tax ñuy wax waaye lépp loo xamante ne dafa dafa mel ni maanaam lu demee nekk tir à l'arc nga xam moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñett yooyu mu mu daganal ko maanaam mooy yi ñetti xeetu fo yooyu moo tax ñetti xeetu fo yooyu la dagal maanaam xët xeet yi ak lépp loo xamante ne dafa aju ci wàllu maanaam daw kii dawal fas ak li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu féey ak féey natation parce que yooyu dañuy defar nit dañuy dëgëralal nit ki te te du foowu am naa foo boo xamante ne moom am powum kese la loolu moom daganut comme li Cheikh Abdas Dabba waxoon rek radiyallahu anhu bi mu rombee nee na taalibe bi moo ko nettali nee na dama romb ma man ak sëriñ bi eh, cheikh abdullah ibnu mubarak eh, eh, ahmad ibnu mubarak plutôt cheikh ahmad ibnu mubarak rahimahullah mu ne dama romb ak sëriñ bi ay gaa yoo xam te dañuy jël benn loo xam ne comme ball la nii ñu koy sànni keneen ki dem jàpp ko ñu sànni ko keneen ki dem jàpp ko ñuy daw di ci topp ak yu mel noonu ma ne ko lii lan mooy àtte bi ci diine mu ne dafa xaram ma ne ko lu tax mu ne ma parce que foolaf ma ne Euh, euh, euh, lu tax mu mu mu foofu le fait que mu nekk foo rek mu xaraam mu ne parce que da day détourner nit ci yàlla maanaam day tax nit ki du xalaat yàlla moment bi muy fo bi muy nekk ci loolu du du xalaatati yàlla mu ne ko mais kon lu tax ñu daganal yi ñett yi ñu tudd léegi mu ne parce que yooyu dafa am beneen xikma bu ci nekk mooy day tax nit ki mën a waajal pour bu xeex jotee ci yoonu yàlla mu man koo def maanaam kon nga gis ni mbir yi dafa dafa wuute maanaam mbir yi ay ay ay mbir yu wuute la boo ci boolee nag ak la fait que temps bu julli jotee doo leen julli nga boole ci ak ngeen di euh, wuññi ay awra nga boole ci jaxasoo yi góor yi jigéen ñi nga boole ci ak yeneen a yeneen moom loolu moom xaraam ci kaw xaraam ci kaw xaraam la moom loolu moom yaakaar naa ne ñaari du ñu xellu duñ ci wuute mu ne dégg nga mu ne kon mu ne wa saabaqa euh, mu daal di jiit mu daal di rawanteloo baynal xayri ci digg diggante tamit fas tamit ay fas allati yi nga xam ne lam tudmar ñoom tamit ba tey kii wuñu leen euh, euh, ñoom it kenn yafalu leen woon ah ilaa masjidi bani zureq maanaam ñu jaw ñu rawante ba ci masjidi bani zureq maanaam jàkk ji nga xamante ne ñoom ñooy jàkkay euh, banu zureq zureq bii nag nga xam ne banu zureq am ngiir la maanaam ab bërëb la ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy rek maanaam ay euh, doomi waa xasraj lañ mooy Zurek ibn Amr ibn Haarisata ibn Jushm ibnul xasraj moo tax ci ansaari yi ñi ngir googu maanaam ci ñooña maanaam moo tax ñu naan ba masjid bani Zurek ngir ne ñoom ñoo ko tabax te ñoom ñoo fay julli maanaam seen koñ ñoom ñoo fay julli ndax xam ngeen ni arab yi nit ñi doon def te loolu sax wolof yi dañ koy def ak ñu baree bari mooy niñ naan comme euh, dëkk bi day nekk dëkk bu mag mu am koñ yoo xamante ne ñi sant nangam ñoo fay dëkk maanaam comme wolof itam dañ koy def nga gis ne ay dëkk yu ndaw ndawaan lay doon yu ndaw ndawaan ci biir benn dëkk ah maanaam doomi diw yi comme buñ na euh, voilà euh, masalan tey buñ nee kër kër bon léegi xëy na wuute na waaye bu njëkk ba buñ naan kër mbay faal kër masaar nangam nga xamante ne ay voilà ñoom diw sangam ñoo fa dëkk léegi nag ñoo après day wuute comme boo xoolee ay Yoff Cambérène ñoom kii lébu yi dëkk fa nga dem feneen ñii dëkk fa yu mel noonu waaw loolu euh, arab yi tamit noonu lañ doon doxalee waaye nag banu Zuray euh, kon ñoom ñoo dëkkoon foofa maanaam lii nag moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi maanaam le fait que jàkka ji ñu tuddee ko jàkkay banu Zuray te Seydina Abdullah ibnu Omar ibnu Xattaab radiyallahu taala anhuma wax ko ah nettali ko te mu jamono jooju yeneen bi sallallahu alayhi wa nekkoon fa. mu ne wa am na te li wér boor mooy abdallah ibnu omar moom ci boppam radiallahu taala anhuma kaa kaana nekkoon na maanaam dafa tudd boppam te bi muy tuddee bi mu tuddee boppam ah euh, dafa dafa dafa dafa maanaam ne ci la bokkoon waaye bi muy tudd boppam dafa tuddee boppam waxul man voilà mu ne saabaxa dafa raw da kaana nekkoon na fii man ci ñi nga xamante ne saabaxa dañoo rawante woon bi haata foofee Euh, moom moo tax euh, euh, li tax nag te loolu kon dañ ci xame ne rawante googa kon dagan na beneen mbir biñ ci xame mooy ne catégorisation mbir mi maanaam mooy buñ naan ñii dañ leen a yofal ba ñu toll nii ñii ñu defal comme naan poids luur yi ak ñeneen ñi ci des voilà loolu tamit dana dagan beneen mbir moo tax mboolem mbir moo xamante ne nit ki moom effortu boppam la ciy def loolu bu boobaa day daal di dagan mu mën koo mu mën koo def su fekkente ne comme par exemple daw daw bi rawante bi su fekkente ne maanaam moo tax yooyu ñoo ci tane yi nga xamante ne ay xeeti comme rawante lay doon ak yu mel noonu ah ay yanu poids wala ay xeet yu mel noonu bu fekkente ne wuñ ñi awra du ci am eh, jaaxasoo góor a jigéen ak yu mel noonu ci am te ndax lool du doon foofu kese ndax defar yaram ci lay bokk waaye ñaareel bi ci des moom mooy dafa am kii bu ci nekk mooy eh, waajal nit ki nit ki day waajal boppam eh, ci ngir mën a tamit téyewaale wér yaramam waaye tamit téyewaale eh, kii bi eh, nu tuddu tudd eh, maanaam ngir gën a mën a am doole itam ngir gën a mën a dëgër tamit ngir bu bu ko diine ji soxlaa mu mën a bokk ci ñi yulli seen seen seen doole maanaam xeex nag day day day day wuute selon jamono ji ak solo lieu comme nii ñun niñ nekkee ni xam ngeen ni soxlawuñu yenn maanaam soxlawuñu di di di di wut ay ay pistolet ay yooyu maanaam ñun li ñun li ñu soxla mooy liggéeyal diine ji ci ay mbir yoo xamante ne day taxaw maanaam mu leer ba pare mu nekk xeex boo xam ne xeexum xel lay doon ak xeexu euh, communication ak xeexu maanaam euh, euh, di di di di wax lu leer ak xeexu jàngale diine ji ba mu gën a leer ci nit ak xeexu rafet jikko ak xeexu maanaam loolu ñun loolu lañ soxla masalan boobu xeetu xeex daanaka lañ soxla fi mu toll soxlawuñu di dóor ay balal di kii jël ay jaasi di dóorante di gorante parce loolu li tax soxla wuñ ko dafa leer nañ bokk na ci yu bëree bëri yi ko waral mooy bokk na ci mooy benn euh, mooy ñi ñu dëkkal ñu ñu dëkkal xamuñu langage boobu wala boog en tout cas ci suñu biir ñun xamuñu ko beneen bi ci des moom mooy euh, koo xamante ne moom lu ci ëpp ci li muy doxale mooy ci mu xelam lay lay lay lay jéem a maanaam la lay jéem a daanele ci ci la lay jéem a discrédité yow il faut nga am xel mu toll noonu ngir mën koo daaneel mën koo discrédité beneen bi ci des moom mooy li nga xamante ne mooy règle yi ñuy am masalan loi yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk maanaam àtte yi nga xam ne ñoom ñoo fi ne masalan loolu moo ñuy may ba ñu mën a xeex ak ñoom tamit ci justice bi bu ñu defee dara wala ñu wax ñu dara lu jaaduwut ñu mën a dem ci kanamu yoon ñu àtte ñu loolu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yooyu yëpp moo tax ñu ba pare beneen bi ci des moom mooy terewuñ ñu ñu julli terewuñ ñu ñu woor terewuñ ñu ñu ñu dem màkk dellu si te loolu ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp moo tax soxla yooyu mooy ne soxlawuñu leneen lu dul lu dul xel lañ soxla ak xel lañ soxla ak leneen ak liggéeyal diine ji ci am njàngale mu leer waaw ak de di di di di ak tamit wut suñu alalu bopp bu ñu moom di ko ci dugal di bañ di di di di sukkandikoo ci kenn maanaam nga xamante ne yaakaaruñu kenn jàppale ñu ci dara suñu bopp rek lañ soxla niki noonu nag day laaj tamit ñu am ay nit ñu am doole loolu ñu war a tabax ñu ñu mën a yëkkati teg ko tabax ko waaye du ñu toog ñun bu ñu waree tabax dara jullit ñi nekk fi ñu dem wuti ci ñeneen ñu ñëw tabaxal ñu ko loolu yëpp may doole ñeneen ñi la ci ci ñun ak ak yeneen ak yeneen euh, ak leneen maanaam yooyu noonu mooy tax maanaam xeetu euh, di yi nga xam ne day maye doole day maye kàttan day maye wér-gu-yaram ak yooyu yooyu ñu ñu bokk ci yi ñuy def tamit bokk ci xeeti eh, maanaam xeetu sport yi ñii mën a war a mën a def waaye nag maadaama loolu lu xaraam raxu ca loolu tamit dafa war a leer euh, ngir ne tey masalan natation lu demee nekkee natation li muy baax baax baax mënatuñ ko def ñun fi mu toll fii en tout cas mënuñu ko def fii ni ñun lu tax parce que à moins que ñu mën a dajaloo am suñu euh, suñu suñu piscine yu bopp yu ñu tabaxal suñu bopp defaral ko suñu bopp nga xamante ne mu boobaa règle ya ñu neex moo fay dox à part lool sinon buñ bëggé mënu ñoo dem ne masalan mooy ñun fi bëggu ñu jigéen ñi di sol li bëggu ñu ñun tamit nii manam mënu ñu ko imposer kenn ndax mo ko manam loolu kon <coughs> loolu kon limi bax bax bax du tax mu dagan nga dem dégg di ko defee ji suñu en tout cas fi bërepp bi ak suñu jamono ji loolu da war loolu tamit man man nay leer comme ni nga xamantene ni mu nekké jaamu yalla ngi mëna taxaw di jàkkaarloog. Euh, euh, géej gi <coughs> ngay gis kéemaanu yàlla bi vague bu ñëw maanaam euh, douze bu ñëw nga nga nga wax allahu akbar ba muy quarante ndax loolu soo ko defee wala ba muy soixante-dix ndax soo ko defee yàlla jéggal la sa bàkkaar yi nga mës a defee ànd ak loolu yëpp ñun mënatuñ koo def lu tax parce que plage yi na muy mel dafa xaraam ñu ñu ñuy dem di toog foofu maanaam yooyu tamit yu mat a xel la maanaam kon Euh, <coughs> euh, kon <coughs> loolu euh, lu mat a bàyyi xel la ci bunt boobu <coughs> li nga xamante ne nag moom la al imam ibnu tin rahimahullahu taala wax ni ma yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne dafa rawanante gaa yi maanaam ñoom bi ndax xadis bi dañ koo tënk nii imam al buxaari rahimahullah da koo tënk waaye rawalante bi mu leen rawalante am na leneen lu ca tegu moom mooy daf leen a euh, ba mu paree dafa fay dafa dafa dafa dafa dafa defal ndàmpaay ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon rawante ku njëkk ki ki nga xamante ne moom mooy ki njëkk a ñëw daf koo jox ñetti euh, ñetti xeeti ensemble yoo xamante ne day am ay or yu ci nekk yoo xamante ne dañ ko koo mayoon yemen la woon yeneen ñaar ñeneen keneen ka ca mu jox ko ñaari ensemble yooyu ka ca mu jox ko ñett mu jox ko benn ka ca mu jox ko euh, diinaar maanaam euh, xaalis euh, euh, wurus mooy comme benn médaille wurus kete tegu mu jox ko bu xaalis ah kete tegu mu maanaam mu jox ko dirham dirham kete tegu nag mu daal di koy am am ay pièces xaalis yu mu ko jox muy juróom-benn juróom-benn ñoom lañu la la la la récompenser maanaam kon moom joxewul ñetti médaille comme ni ñu koy defee ci ah ci championnat yeeg wala jeux olympiques yeeg yooyu waaye ñaar ñetti. waaye juróom-benn la joxe ba mu paree nag daal ne baarakallahu fiika wa fi kullikum wa fi saabiqi wal fiskal maanaam yàlla na yàlla barkeel la maanaam ki raw daal ne yàlla yàlla barkeel leen yéen ñëpp tamit ba pare yàlla na yàlla barkeel ka njëkk ba ca mujj maanaam loolu tamit mu daal di wax yàlla daal di ñaan loola. amaan na nag ki nga xam ne moo gañe woon mbir moom mooy Seydina Abdullah ab Umar ci boppam radiyallahu taala anhu moo ko gañe amaan na. Euh, waaye kon moom bokkoon na ci ñuy rawante ci la ñuy xamee ni ñii di rawante comme tey ñii ñuy wane ñuy dem ay Longchamp ay ñooñu noonu ñooñu tubaab yi mooy ñi ngay gis ñu kii di rawante fas yi noonu ñooñu la def ñoom dagan na. par contre ñi ñi ñeneen ñi nga xam ne ñooy miser ci ñoom loolu ñoom daganut voilà ñii parier ñooñu loolu la ñuy def daganut ngir ne amuñu benn effort bu ñu def ci mbir mi lu dul tandus ba pare dañuy joxe seen xaalis ci loo xamante ni wóor ñu mën koo récupérer ba pare keneen ci àqi moroomam yi rek lay lay nangu jël ko ci loo xamante ne defu ci benn effort lu dul tandu loolu moom mooy euh, euh, moo tax loolu dafa dafa xaraam ni sàngara xaraame comme ni ko aaya bi waxee mooy maysir xamru wal maysir euh, beneen bi ci des nag moom mooy rawante gii nga xamante ne comme ay rawante gaal masalan tey rawante gaal ñey rawante loola la ñuy def dagan na mais buñ amoon kenn ku pare parier day daal di maanaam ci kii bari yi moom xaraam na ak yu mel loolu kon maanaam teqantal googu mat naa bàyyi xel mais lii kenn tegul dara dañ leen dañ leen dañ leen a jox kenn ku ci nekk waaye bu fekkoonte ne dañoo teg kenn ku ne am lu mu tegit dana dagal comme ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, yéeféer bi ne ko woon euh, kaay maanaam ma jël samay euh, fukki xar yow nga joxe su fukki xar ñu bëri ku daan moom mu jël lépp maanaam yonent bi saa sam daan ko à chaque fois mu yokk fukk bu fukk ba xaram yépp jeex takk mu ne ko non may naa la lépp te moom kenn mos ko woon a daan ci la ne ko nag ah xam naa daal dëgg-dëgg yonent yàlla la maanaam loolu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam loolu kon dañ ciy xamee ne <coughs> maanaam moom la ñuy xamee ne euh, maanaam mooy rawaan mooy mbir yooyu dana dagan li daganul kay mooy tamit bind leen euh, Euh, euh, maanaam ab ah, question baa ngi nii tontu leen ku tontu SMS bi ngay tontu am na nangam bu ci yokku maanaam parce que lu tax bu doon ne maanaam ndax yow da ngay teg dara ngir perte loo xamante ne euh, dépendre tout ci yow ndax yow da ngay tontu gars yi jël seen xaalis ba noppi ci biir ñi tontu tontu bi jub ci ñooñu la ñuy tànn. maanaam ci ñooñu la ñuy tànn kay gañe loolu tamit loolu day xaraam amma te te loolu day tegtal ne rawante yi xeetu rawante yi masalan teg nañ nit ñi ñuy rawante jàng alquran wala ñuy rawante tari hadis wala ñuy rawante masala fekk ñu xool kan wala ak yu mel noonu yooyu après yi ñu daal di jël ki gañe ñu jox ko ndàmpaay ka ca tegu noona et cetera selon niñ ko tegee rek loola dana dagan dana dagan ngir ne da ngir ci effort am la def maanaam am xelam la namm. ak it xam-xamam la jëfandikoo waaye ki nga xamante ne jëfandikoo yooyu yëpp dara ci tàndu rek la aju loolu moom day daal di xaram te loolu moom mooy maysir mooy xaalis bu yomb mooy maysir mooy jëfandikoo maanaam di di wut di am po moo xam ne day joxe xaalis bu yomb loolu mooy maysir. kon kon football bu bu kii kii maanaam bu mu solee seen kii def football nii rek dara nekku ci kon. ah kay moom laa la doon wax léegi dóor bal boobu noonu daw topp ci maanaam ak yu mel noonu.

alors que ñi nga xamante ne ñoom ñooy fo fo football ak di basket ak yooyu ñoom dañ naan dañuy jouer jouer ñoom ñoom ñu ngi ci jeu bi ah euh, te même bu fekkente ne xëy na voilà maanaam mais li ma la bëgg a wax rek mooy ne même nit kii xool ni muy xoolee kii bokkut ak ni muy xoolee ñee te beneen bi ci des moom mooy football bi xam ngeen ni ki bon loolu sax du lool mooy déterminant ci masara bi mais football bi ki gagné du ne moom a gën a ay alors que rawante bi ki dàq daw koo koy raw euh, ndax euh, ak yeneen ak yeneen maanaam mbir yi dafa aju ci yu bëri bëri alors que ci ci ci ci ci comme ni ko gars yi di waxee football bi daa am ay ay jeu ay ay ay réalités boppam voilà beneen bi ci des nag moom mooy euh, kii bi ci nekk maanaam état état d'esprit bi nekk ci ginnaaw foo football boobu. état d'esprit bi nekk ci ginnaaw football boobu ndax ndax xeetum pola boo xamante ne euh, nit ki xam nga da ciy bànneexu day nem di ciy bànneexu ci ci po bi xam ngeen ni football bokkut ak daw bokkut ak daw ak rawante te même daw yi ñuy def nii ci Jeux olympiques yooyu yooyu wax mu ne dagan nañ ah bu yooyu laa wax ne dagan nañ voilà voilà maanaam li leer na voilà mu ne xadis boo xam indiwaat moom Al-Bukhari yi nag indiwaat na ko incha allahu taala daañu mil gën a gisaat xadis numéro 2868 2869 2877 7336 imaamu muslim nag xadis numéro 1870 imam Malik foofu la ñu waroon a njëkk ndax ci moom la jóge indi na ko xadis numéro 1342 euh, imam muslim bi mu ko indiwaat da ko indi jële ci yoonu yaxya ibn yaxya at-tamimi sëriñam boobu mu solo ko ci imam malik rahimahullahu taala imam euh, abu dawud indi na ko xadis numéro 2575 ak 2576 imam at-tirmidhi indi na ko xadis numéro 1699 imam an-nasa'i xadis numéro 3583 ak 3584 imam ibn maaja indi na ko xadis numéro 2877 imam ahmad ibn hanbal na ko xadis numéro 4487 4594 5181 ak 5588 kon gis nañ ni waa saabu kutubu si te ñoom solo nañ xadis bi rahmatullah ala aljamii mu ne baabul qismati wa taaliqi alqitmi fi lmasjid baabu buntu alqismati xaajale maanaam séddale dégg nga maanaam li wa taaliq ak ak ak ak ak ak ak lonk al xenwe fil masjid al al al moom mooy ay car cari tàndarma fil masjid yi ci jàkka ji dégg nga maanaam kon fii imam al buxaari rahimahullahu taala dafa am ñaari mbir yu ko tax a jóg ci bunt bi mbir mu njëkk mi moom mooy li nga xamante ne moom mooy Euh, moom mooy di àtte di di di séddale alal ci biir jàkk ji maanaam ñu nekk ci jàkk ji alal ji ñëw ñuy séddale ci biir jàkk ji loolu lay lay leeral euh, te day leeral ak daganam ñaaral bi ci des moom mooy ne li nga xam ne moom mooy euh, nga lonk ci jàkk ji ay ñam ngir ne masalan ngir ñi ñàkk am ñàkk alal ñàkk lu ñu dundee maanaam mën koo jëfandikoo waaye loolu tamit àtte ñu indi ñam ci jàkk ji teg ko daf ci daal duggaale maanaam tey bu fekkente ne jàkka jaa ah ñun de am na ku fi maye maanaam indi nañ mburu teg nañ ko ci buntu jàkka ji wala yooyu lonk ko ci jàkka voilà loolu boobu la yor ku bëgg jël ku génn rek bu bëggee yóbbaale mu nekk sarax wala ki nga xamante ne moom mooy euh, li wala masalan fa añ wala reer wala yu mel noonu ci biir jàkka ji ginnaaw julli wala yu mel noonu yooyu tamit maanaam moom lay leeral fii mu ne. Euh, imam albuxaari raximahullahu taala qaala abu abdullah mooy moom albuxaari raximahullahu taala mu ne alqin wu mooy alisqu rek alisqu moom mooy cari tàndarma mooy voilà mooy cari tàndarma garab mooy garab bi dégg nga wal isnaani ñaar yi xinwaan la ñuy wax wal jamaatu mbooloo mi aydan ba tey xinwaan la ñuy wax loolu misla mislu mi ngi mel ni sinwin seen ak seen waan seen mooy lu nuroo maanaam moom mooy euh, dañ koy wax ngir ñaari mbir seen dañu koy wax ngir wax ne euh, ñaari mbir yu nuroo dañ naan seen ñaari mbir lañ yu nuroo wala boog ñu ne seen moom mooy tamit maanaam ñetti ceru tàndarma yoo xam ne dañoo bokk cosaan ñetti dattu tàndarma yu bokk cosaan loolu tamit dañ koy wax seen dégg nga moo tax euh, ndey maanaam ab ab bay tax ñu nan ko seen dégg nga moo tax euh, moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne alam tara anna al amma sinwu abi maanaam ne euh, kii euh, bay tax moom wu la maanaam mooy ab ku nu bàyyi ñoo nuroo maanaam bay tax ak bàyyi ñoo bokk àtte ñoo nuroo mais pas ci ndono waaye ñoo nuroo ci yeneen yu bari dégg nga kon imam al buxaari rahimahullahu taala ñaari mbir yooyu la bëgg a leeral mu nekk qaala wax na ibrahim Euh, mooy ibnu tahman euh, rahimahullahu taala xadis euh, bi xadis la boo xamante ne muallaq maanaam muallaq la imaam al-Buxaari rahimahullahu taala indi da ko indi mu waaye nag xadis la boo xamante ne jokkaloo na ñeneen soloo nañu ko ku mel ne al imaam al-Xaakim rahimahullahu taala ci mustadrakam wala boog ñeneen imaam nako nonu imam an-Nasaa'i rahimahullahu taala indinako ak ñeneen ak ñeneen ño xamantene indinañu ko ñoom tamit rahmatullahi ala al-jami' ku mel al imam ibnu abi shayba mu ne wala ak at tabarani tam rahimahullah mu ne wa qaala ibrahim tam moy mooy ibnu tahmaan rahimahullahu taala moy abu sa'id al khurasani al-Hawrawi rahimahullahu taala mom ñu ngi génn àdduna cent cinquante huit cent soixante troisième année bokk cent soixante année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom imam al buxaari rahimahullahu taala soloo na yeneen xadis ci càllale gi waaye càllale gi jokkaloo jokkaloowul maanaam imam al buxaari nag saa yu ne diw maanaam mu nekk taaliq boo xam daf ko jëfandikoo ci siixatul jazme li muy teg mooy xadis boobu hadith bobu werna borom xam-xam yi rahmatullah am nañ ko ba gis ne hadith bobu werna waye nak cyallale gi indi ko fi muna ne an Abdul Aziz ibn Ibrahim ibn Tahman muna ne an Abdul Aziz ibn Suhayb rahimahullahu taala muy talib sayyidina Anas radhiyallahu taala te gisone nañ ko moy Abu hamza al Bunani al Basri rahimahullahu taala moom Abdul Aziz ibn Suhayb solo na ci Seydina Anas ibn Malik ak. ñeneen rahmatullahi ala jami waaye ku ñu ëpp li mu solo ci moom mooy seydna abdullah abdul ci anas ibnu malik radiallahu taala anhu imam ashaba ibnu alxajaj ak sufyan ibn said althawri ak hamad ibn zayd hushaym ibn bashir al wasiti ak imam abdul waris al basri ak ñeneen sufyan ibn uyayna rahmatullahi ala jami ak ñeneen solo nañ ci moom Euh, moom siqala comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee bëriwul nag xadis yu mu solo waaye cent trentième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la génn euh, àdduna mu ne an anas te moom mooy ibnu malik ibnu nadr ibnu damdam radiallahu taala anhu zul usnayni abu hamza sa sahaaba ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xaadim rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa mi ngi solo ci deux mille deux cent quatre-vingt-six xadis moom mooy ay musnadam cent quatre-vingts xadis yi imaam al-Buxaari ak imaam Muslim rahmatullahi alayhi ma bokk nañ ko solo quatre-vingts la imaam al-Buxaari wéetoo imaam Muslim wéetoo quatre-vingt-dix xadis kon imaam euh, na Anas radiyallahu taala anhu mun annahu qaala nee na utiye indila nañ annabi annabi yu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi maalin ci alal min al Bahrayn bu tukkee ci ba euh, ki ko ko indi nag mooy al Alaa ibnu al Hadrami rahimahullah radiyallahu taala anhu maanaam ndax mu mokk moom la fa tegoon Euh, nga xamante ne ndax ñoom la yeneen bi sax ndax ci xaraaj yi la jóge alal ji maanaam mooy lan moom mooy euh, bu demee ba euh, jël ab dëkk danaan yéen léegi ni ñuy def moom mooy ñun dañuy indi suuf si yéen ngeen ngeen indi mbay mi maanaam ngeen ngeen ngeen def ci kii bu ñu paree nag ñu daal di séddoo waaw maanaam loolu nga xamante ne yaman nag ci ci la njëkk amee maanaam Bahrayn bokk astaghfirullah Bahrayn ci lañ njëkk amee alal ju bari jooju nga xamantene 100000 lañ fi indi manam lu tolloog 100000 manam 100000 dinar la amana wala 100000 dirham lu ci man ci xew lu bari la mom lañ indi won ci jakk manam mom lañ ko yónnee mu ñëw nak alal di nak ñëw dugg ci si biir jàkka ji wa daal di ñëw ci jakk ji nak tabarakallah fa qala mun insuruhu ay aywa na ko nak legi tas leen ko fi manam soti leen ko insuruhu soti leen ko fi masjid ci jakk ji wakaana te mu nekkon nak aksara malen lu upp ci alal nga xamne ne utiya moom la ñu indee bi ci moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam alal a bëri bi ñu ko indiloon loolu la woon maanaam am na ñeneen ko daan di comme xaybar waaye bii moom bi jógee woon baax rek moo gënoon a bëri liñ jotoon a indi mu bari lool ñu ñu jax ko ci jàkkee <coughs> mooy kon alal mu ne na ko maanaam teg alal ci jàkkee ji loolu xaraamul <coughs> dégg mu ne fa xaraja waaye eh, mu fa xaraja mu génn rasulullahi ndawal yàlla de sallallahu alayhi wa sallam ila salaati jëm ci julli waaye walam gis nga alal ji dafa ñëw maanaam ci kër gi lañ ko fekk di ko indil alal ji mu ne yóbbu leen ko ca jàkka ja maanaam loolu moom mooy alal bu ñëpp moom maanaam dañ koy yóbbu fa ñëpp moom waaye alal bu ñëpp moom nga ko indil ko sama kër gi ngeen ñu denc ko loolu du demee noonu dégg nga alal ji ah, waaw wala alal gi ñëpp moom nga dugal ko sa compte personnel déedéet dañ ko war a dugal ci compte bi ñëpp bokk voilà maanaam compte daayira bi lañ koy dugal kenn ko dugal ci compte euh, trésorier wala président wala keneen dégg nga <laughs> voilà ndax alal di ñëpp moom la moo tax fa ñëpp moom bokk ko mooy jàkka ja foofu lañ ne ne nañu ngeen dañ dem teg ko fa waaye tamit loolu day wane ne tamit ñoom mooy saxaaba yeneen yeneen bi sallallahu alayhi wa maanaam ñu maandu lañ ngir ne alal jooju buñ ko fa tegoon ba pare ñoom te kenn surveillé wu ko te terewut buñ ñëwee fekk ko fa mooy ne Euh, mooy ne nit ñi maanu nañ waaye bu doon euh, am na foo xam ne day ay bu doon foofu la kon day bu ñu ko fa jale boo moytul buñ ñëwee ay miet lañ fay fekk waa am luñ fa fekk dara maanaam boo fa bëggee fekk dara sax da ngay jiix am na foo xam ne moom bu doon foofu la noonu lay defee waaye nag yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xaraja mu daal di génn moom rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ila salaati jëm ci julli walam yaltafit te gestuwul ilayhi jëm ci alal gi maanaam xoolul sax alal loolu tamit day wane ni nga xam ne noonu la julli mag gi ci moom te loolu wax na ko soxnaam yi wax ne seedeel nañ ko ko ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci kër gi la daan ne daan na laal ci lu nekk ci kër gi di ci di jàpp di jàpp ci liggéeyu kër gi waaye bu julli jotee day mel ni xamuñu xamuñu noonu lay demee xamuñu xamuñu ko loolu daan ñëw maanaam moom moom euh, ngir ne buy dégg nodd rek day dem julli ji te noonu tamit noonu la noonu la meloon moom sallallahu alayhi wasallam benen bi ci dess tamit manam bi comme li alquran wax ne ma zaagal basaru wa ma taqa manam xolam musta jéng manam du xol fenen fu bokut ak lako taxajuk ba pare mooy boromam subhanahu wa taala te musta weesu fañ ko xollo manam te loolu moom mooy moom boromam rek la la yittiloo mom borom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne fa lamma qada ba mu noppé nak as-salatu ci julli gi mom julli nak ba julli nak ba julli ga pare nak jaa ci le dikke rek fa jala sa mu daal tok ilahi ci alal ja fama kaana nekkutoon yaraa di gis ahadan kenn illaa lu dul aataahu dana ko jox maanaam ku ñëw rek dina am lu mu la jox am am ku ñëw mu ne am jëlal am jëlal am jëlal ànd ak ne mënoon naa jël lépp aakimoo ko is rek maanaam ca jamono jooja rek jaa ahoo mu dikki ko al abbas mooy al abbas ibn abdul muttalib radiallahu taala anhu di ndijaay yenent bi di baytaxu yenent bi ah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne nga fa xaala mu ne yaa rasulallah e eh, yow ndawal yàlla li aati nii jox ma maanaam loolu tamit day dagan day day day day day day wane la maanaam laaj ci alal gi nga xam ne ñëpp ko bokk maanaam mooy eh, alal boo xam ne maanaam ñëpp ko bokk nga laaj ci cër fekk ñu ñu koy séddale bien sûr nga ci sa loolu day daal di fii nag borom xam-xam yu bari rahmatullah alayhim ci ñi sarxa xadis yi léeg-léeg ñu am benn xeetu njuumte gu leen dab ci xadis bi maanaam ndax dañuy commencé di wax maanaam dañuy wax naan amaan na euh, maanaam mbir mi euh, ndax Seydina al abbas radiallahu taala anhu dafa bokkoon xëy na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñi maanaam juróom-ñetti nit yi borom bi subhaanahu wa taala wax ne ñoom dagan nañu jox leen azaka ci kaw loolu nag ñuy wax ñuy ñuy jël ay xeeti interprétation yu baree bari di ko ci dugal waaye alal ji du woon azaka alal ji alal ji nga xamante ne la maanaam yeneen ti sallallahu alayhi wa sallam moo ne woon maanaam moom la doon mooy xaraaj la rek maanaam mooy ne ñoom lañu ca ni la jóge te du woon asaka foofa maanaam dañ dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa séddoo woon ak waa Bahrayn suuf sa ñoom ñu bayal ko suufam mu euh, mu mu am ca alal bu bari alal jooja euh, bi ñu séddoowee kii jël maan ñi doon liggéey jël seen alal la ca des ñu indil ko ko loolu la kon bu boobaa bu ciy joxe dañ koy joxee rek mu ko neexee voilà loolu kon bu boobaa loolu tamit day wane moo tax ñamuy jox kenn joxul kenn tolloolewul ñi mu doon joxe te loolu moom mooy nit kuy maye kenn du ko wax ne ko ah, da ngaa war a tolloole maanaam ñëpp war a tolloo comme da dem bay maye déedéet kuy maye moom ñëpp mu amul tolloo ku mu neex lu ko neex la lay waaw loolu tamit beneen mbir la bu ci am ba mu ne ah, ndax mu ne ko yaa rasulallah eh, yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam aafi ni jox ma beneen bi ci des moom mooy. Euh, mu mu mu nekk fa indi naka man faadaytu damaa jëndee naf si sama bopp wa faadaytu damaa jëndee aqilan aqil aqil mooy doomu euh, abdal euh, doomu abu taalib di doomu abdal mutalib maanaam kon muy moom ak yeneen bi maanaam aqil mook Seydina kii ñoo bokk Seydina Ali ñoo bokk ah ay moom ak yeneen bi saa sam kon ñoom ñii ay cousin lañ ah léegi bi nga xamante ne li fii nag fa mu jëndee boppam jëndee aqil moom mooy euh, badar ndax xare badar euh, dañoo amoon euh, maanaam dañ leen a jàppe woon dañ leen a jàppoon jàmm bañ leen jàppee jàmm lool moo waral ñoom ñi ñu jënd leen ñu ñu ñu ñu jënd ñu jëndee seen bopp maanaam ñu prisonniers yi ñu daal di joxe rançon léegi nag lool nag nekkoon alal goo xamante ne dafa taxoon seen alal gu bare bare ñu ñàkk ko ca loolu nag lay wax nii maanaam kon nag euh, moo tax alal googu nag nga xam ne moom laa ñàkkoon nag nga gis ne xoolal yeneen bi ni mu maandoo sallallahu alayhi wa sallam maanaam waxul sax ne yéen comme samay mbokk ngeen yéen bu leen bokk bu leen bu leen joxe lu bari wala nañ leen baal déedéet ñëpp dañ leen di teg ci même règle bi ah waaw mbokk yeneen bi sallallahu alayhi wa ak ñu mbokkam ñëpp ci même règle bi la ñuy suweetoo ñëpp voilà loolu tamit day wane euh, maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam te it day wane tamit màggaay ki nga xamante ne moom mooy euh, maanaam ak maanaam bàyyi xel gi mu bàyyi xel boroomam subhaanahu wa taala waaye bi nga xamante ne moom la wax lii tamit ñu ne nañ ko nañ ko jox lii wane ni mu ne na fa qaala mu wax la woo ñeel ko moom rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xuus jëlal maanaam kon li muy tekki mooy kon moom dagan na ñu may ko ci alal jooju ñu jox ko ci alal jooja bu doon alal jooju nag su doon azaka la du dagan moom mu jël ko ngir ci waa ahlul bayt la bokk dégg nga moo tax bi mu ko ko nee na fa xasaa mu daal di sotti fii saw bi yii ci ci ci ci yéreem mu daal di jël mbalaanam rek duy di duy ci alal bi dégg nga su ma topp nag zahaba mu dem yuqilluhu di ko yanu maanaam di di jéem a yanu alal jooja waaye falam yestate àttalu ko waaye manu ko woon àttalu toon euh, mbir mi ndax tellement lim ci jël dafa bari àttalu ko woon léegi nag comme àttalu ko woon فقال من يا رسول الله ايو نوال يا الله صلى الله عليه وسلم امور ديغال بعضهم لن نيو يرفعه مداد كو ييكتي الي يجم مان مانام موم موي مو انديل مكو سما كير مانام كون واخال كين تي غاي نكو جيل انديل مكو سما كير فقال مو وخول يلانتي بي صلاح نيكو لا ديدت لول دوما كو ديف اه واو غير دوما وخ كين مو جيل كو يوبو مو انديل لاكو qaala mu ne ko kon farfaaw yëkkati ko yow kon ante yow ala yeg ñëw indi indil ma ko yow kon yow jël ko nga indi ko xam nga moom bàyyi taxam la bàyyi taxu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko jël ko nga indi ko kaala mu ne ko laa déedéet du ma ko def tamit waaw parce que lu tax parce que dafa bëgg kenn ku ci nekk jël li nga àttan parce que bu dee loolu mën naa nekk ñii dañuy ñëw indi sëf ah, duy duy duy duy ne dem voilà waaye ku nekk da ngay jël li nga xamante ne moom nga àttan nga yóbbu ko su ko defee ku nekk man cee am loolu <laughs> mooy maandute waaye loolu moo tax ànd ak ne bàyyi taxam la bàyyam la mais bii la doxalee ak moom maanaam comme quoi yeneen bu dëgg taxawee lépp day taxu dëgg rek ka fi ne sallallahu alayhi loolu mooy maandute dégg nga <laughs> mu ne ko mu ne ko euh, mu ne ko fa nasara nag dégg mu daal di kon muy muy sotti min ci moom summa topp zahaba mu dem yuqilluhu àttan ko maanaam muy sotti di sotti ba keroog mu at muy àttan la mu gën a yóbbu dégg fa qaala mu ne yaa rasulallah eh, yow yàlla li salaa salaam maanaam muy dem tamit di ko yóbbu bugg koo yanu ba tey àttanagu ko dégg nga mu ne ko umar digalal baadahum kenn ci ñoom yar faaw muy yóbbu ko ila aliyi maanaam sax yóbbu yanul ma ko qaala mu ne ko laa déedéet qaala mu ne ko farfaaw kon yëkkati ko anta yow alaye qaala mu ne ko laa déedéet fa nasara mu daal di commencé sottiwaat nag koy àttan nag fa alqaahu mu daal di koy yen ala kaahilihi ci diggam gi da su man talaqa mu daal di dem ah, gonem gi dégg nga fa ma zaala mus dañu rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yutbi'uhu di ko topp basarahu ak bëtam maanaam di ko topp di ko xool xatta mbete xafiya mu daal di euh, muur alay naa ci ñun ajaban ngir yéemu min xersihi ci xër gi mu xër ci alal maanaam mu nan ci eh? ah cëy xër xër xër maa ngi gis nit gi dafa xër ci alal moo tax mu mu mu yóbbu mu mu yóbbu alal ji maanaam ngir bëggoon a gën a bëgg yóbbu lu bari noonu waaye yeneen yi nag sallallahu alayhi wa sallam loolu dafa bokk ci tarbiya bi muy defal tamit saxaabaam yi radiyallahu anhum maanaam comme dafa xër ci alal bi moo tax bi ñu ko yóbbuloo mu yóbbuloo ko rek li nga xam ne moom la àttan loolu tamit bokk na ci ci ci li muy jariñ tamit mooy su ko defee mu xam ne alal gi jarul xër waaw jarul xër lii dégg nga <laughs> mu ne fa maa qaama waaye taxawul rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wasam fekk foofa nekk na min xaaf te foofa dirhamul benn dirham kese kon cent kon ay dirham noonu cent mille dirham la woon nit ñi jël di yóbbu di yóbbu di yóbbu benn dirham desatu fa muy joxe ku ñëw mu jox na jox la maanaam moom boppam jëlu ko jëlu ci loolu day wane kon dëddu àdduna gi nga xam ne noonu la dëddoo àdduna ak maanaam li nga xamante ne noonu la ñàkk bàyyi xel affaire alalu àdduna soxalu ko sallallahu wa sallam maanaam àdduna ni mu de dee deewee maanaam ni mu deewee ci moom am amul dara lu ko ci xirtal yàlla rekk ko ñor subhaanahu wa taala waaw ànd ak ne gis nga alal ji moom bu du ko woon mënoon na ne ah comme sama alal la xaar leen teg leen ko fii ci kër gi déedéet ci jàkka ja la ko yóbbu ñépp ñëw toog ku ñëw mu jox la ku ñëw mu jox la ku ñëw mu jox la ba mu jeex dégg nga kon euh, xadis bii day wane ni séddale mu def na koo def kon ci biir jàkka ji maanaam séddale alal rawatina alal goo xamante ne alal bu ñëpp moom la wala boog alal la gu ñuy mayee tout simplement nit ki mën na koo indi ci jàkka ji ñu commencé koo séddale ci jàkka ji loolu du lu ñu tere ci jàkka ji te it yu fi toppatoo yëfi àdduna lii kay maanaam ak jaamu yàlla gu màgg la di saraxe ci biir jàkka ak di dimbali nit ñi ci jàkk ñi ñëw ci jàkka ñi ñu di leen dimbali loolu xeetu jaamu yàlla gu màgg la waaye euh, ci kaw tamit saraxe googa bañ a am ay coow ay xuloo ay xeex ay xëccoo yooyu tamit mu bañ cee am séddale googa waaye bu fekkente ne li ci am lii rek la loolu moom lu dagan la bokk na ci li nga xamante ne tamit moom la euh, Euh, moom maanaam euh, moom maanaam beneen wàll gi nga xam ne nag moom mooy car yi lan moo tax kon imam al Buxaari rahimahullahu taala wax ne mënef naa ak car caru tàndarma yi ci ci ci jàkka ji mooy ne ci beneen riwaaya xadis bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba mu génnee di dem bi mu génnee di dem dafa romb maanaam ci biir jàkka ji maanaam ci ñu lonk ci ay car cari tàndarma pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu ñàkk maanaam kon loolu te waxu ca dara loolu moom moo tax waaye imam al-Bukhari rahimahullah day faral di indi lu mel nii tamit danaa nangam nangam te loola mu am partie ci biir euh, benn wàll ci biir tarjuma bi maanaam ci biir ni mu intitulé bunt boobu loo xamante ne du ñëw ci xadis bi waaye day ñëw ci xadis bi maanaam ci beneen riwaaya lay ñëw ci xadis bi waaye imam al-Bukhari rahimahullah loolu daf koy def ngir xiirtal nit ki ngir mu mën a wër xadis bi xool feneen fi mu ñëw ñëpp boo ko defee fu xool ndax dana am luy wane loola ci biir mbir loolu nag day tax taalibe bi kon di gën a xërtulu ci buntu xam-xam ak di gën a def yitte xadis euh, bi imam al Buxaari ci waa asxaabu kutubu sitta moom rek moo ko indiwaat ci xadis numéro 3165 maanaam euh, imam al Buxaari rahimahullahu taala xadis euh, bi yëpp maanaam kutubu sitta yëpp xadis bi ñaari yoon la ci ñëw te ñaar yëpp ci saxiix imam al Buxaari la ñëw rahimahullahu taala na qaala Euh, danga mun a xaala baabu buntu man ki nga xam ne daa day woote li taamin ñeen ñam fil masjidi ci jàkka ji wa man ak ki nga xamante ne ajaaba wuyu na fii ci biir jàkka ji ñam kooga maanaam kon ki nga xamante ne am na tamit ci e, riwaaya e, e, maanaam am na ku ci yeneen riwaaya yoo xamante ne wa man ajaaba ak ku wuyu min wu ci maanaam ci jàkk ji dem ci dem ca ñam ga boobaa minhu lay doon am na ci riwaaya Kushmayhani boo xam ne wa man ajaaba ilayhi la maanaam ak ki woote ilayhi jëm ci jàkk jëm ca moom maanaam li nga xamante ne kon fii moom lay wax euh, mooy ne yent maanaam day leeral ne jàkka ji mënef na la cee wootee maanaam ne buñ lay invité ñam mën mën ngeen a taseeg ci jàkka ji mu ne la euh, man day ngoon maa la invité reer wala boog Euh, suba maa invité añ wala boog kaay ñu dem kër gi añi ji wala yu mel noonu wala ñu dem restaurant invité la loolu nekk ci biir jàkka ji wax lu mel noonu aayut maanaam kon ñu ba voilà loolu yooyu yëpp bokkul ci ay wax yi ñuy tere ci jàkka ji waxi caaxaan la ñuy tere ci jàkka ji te loolu duy caaxaan dégg te woote jëm <laughs> loolu mbayee di xam nañ ci dara <laughs> dégg <laughs> waaw kon loolu woote jëm ci jàkk te loolu du lu ñuy tere dégg nga kon euh, li nga xamante ne nag euh, kon moom mooy li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii mooy di wane ne jàkk tamit am na comme ni nga xamante ne noonu la waxee maam te day junj benn wàll ci la muy waxoon fële mooy comme mu nekk na fiy séddale te buñ ko séddalee nit ki mën na ci dem jëlu ji wuti ci ay ñam naka noonu li ñuy mën nañoo séddalee ay ay alal ci jiw ci biir jàkk ji naka non man nañ ci wékk ay ñam waxuma la nak ñu ñew ci jàkk ji woola ne la kay nga dem lekk ji lolu kay da loolu dara nekku ci mune qala qaala bil isnaad al muttasil fi awal kitab la yahdathana abdullah ibn yusuf te moy at tirmidhi waxa nañ waa saam kutubu sitta solo nañ xalis mom la muslim imam muslim ak ibn majah rahmatullah alay te ñu euh, ngi génn and 218 cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent gisoon nañ ko legi euh, qala mune akhbarana malik imam malik rahimahullahu taala gisoon nañ ko legi ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta an isxaq ibnu abdullah te moom mooy isxaq ibnu abdullah ibnu abi talha te abu talha mooy zayd ibnu sahl daañu ko gis léegi al ansaari rahimahullah an najjaari rahimahullahu taala abu yahya wala abu najih moom mooy dàqante la moom isxaq rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna cent trentième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëkk Euh, ba ba bay maanaam euh, Seydina Anas ibnu Malik radiyallahu anhu bay taxam la ndax Seydina Anas euh, ibnu Malik ndax ndax lan Ummu Sulaym mooy Ummu Sulaym mooy baayu mooy mooy maamam mooy baayu Abdallah bi bi ko jur moom ah, moom eh, eh, Ishaq bi rahmatullahi radiyallahu taala anhu a naan noo samea dégg na Anasan mooy Seydina Anas ibnu Malik radiyallahu anhu noo xaale nee na wajattu fekk na annabi yee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fil masjid ci jàkk ji maahu fekk mu ànd ak moom naasun ay nit fa qumtu maanaam kon loolu tamit moom mooy nekk ci jàkka ji nekk nit ñi ci biir jàkka ji euh, te bañ a toog maanaam ne mooy imam bi obligé wul kon mu nekk nga xam ne rek moom ci ci mimbar bi rek lay toog déedéet te it toogandoo ci biir jàkka ji nekk ci ay yitte yooyu loolu dara nekku ci nekk ci biir jàkka ji moo tax mu ne maa nekkoon na ak moom naas naasul ay nit te kon dañoo nekkoon ci biir jàkka ji nekkandoo loolu mën naa ne moo xam dañuy waxtaan waxtaanu diine moo xam dam jàngale lañ fay def wala yu mel noonu wala dañ fay nekk ngir beneen mbir moo xamante ne dagan na loola man naa ne ndax jàkka yi néegu yàlla la néegu yàlla nag jullit bi néegam la néegu yàlla néegu jullit bi la heure bu ko neexee la fay dugg heure bu ko neexee la fay génn te lu ko neex la fay def maadaama loola xaraamul dégg nga loolu moom mooy li nga xamante ne euh, maanaam yooyu mooy mooy message yooyu la imaam al-Bukhari bëgg a jàllale rahimahullahu taala ci mboolem bunt yi nga xamante ne moom la nekk di nose ci yu bari ci bunt yii maanaam boo xoolee Euh, bi mu génnee tegginu ay tuflit ak ay ñandaxit ak ay xaaxtandikoo xeet yooyu ak ci jublu xibla bi maanaam orma bu mu jàkke ji am ak yooyu mu ci wax di wane ne waruñu koo salteel waruñu koo tilimal war nañoo xormaal jàkk ji ak yu mel noonu nga gis muy commencé di indi ay bunt yoo xam ne day leeral ne jàkk ji am na am na tamit maanaam du rek foo xam ne boo fa nekkee da ngay mel nii maanaam euh, voilà dootoo dundati déedéet da ngay continuer di dund tam quand am na ay mbir yoo xam ne maanaam ndax jàkk ji mooy këru jullit ñi jullit yëpp ko bokk tax yàlla moo mun moom maanaam loolu la lay loolu lay leeral fii mais kon jullit bi da ko war a jàppee ni këram waaye nag mu am yoo xamante ne mënu ko faa def yoo xamante ne du dagan mu def ko fa yooyu nag am nag yoo xam ne daggan nañu def ko fa ngir ne duggul ci buntu caaxaan dégg nga nee na moo tax mu daal toog nee na fa qumtu ma daal di jóg fa xaala mu daal di wax lii ñeel ma arsalaka ndax daf laa yebal abu talha mooy sayyidna euh, euh, comme niñ ko gisee woon radiallahu taala Euh, Zayd euh, hmm, ibn Sahl al Ansari radiyallahu taala anhu Zayd ibn Sahl ibn al Aswad an al Ansari radiyallahu mbokk ci waa banu Najjaar te moom la yeneen ci bi salaa salaam ne ngir maanaam ci waa batn bi maanaam ngir gi gën ci waa Ansaar mooy waa banu Najjaar dégg nga mooy soxna maanaam mooy borom këru Sayyidat Ummu Sulaym radiyallahu taala di euh, yaayu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala kon di maami Ishaq bi nga bin gis léegi Ishaq ibn Abdallah ibn abu talha radiallahu taala an jamii moom fekke na al aqaba maanaam eh, jaayante gi yenente bi sallallahu alayhi wasallam jaayante woon ak waa ansaar ca dajwa eh, fekke na badar ak oxot ak mbooleem xare yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam xare yépp fekke na ko am moom mi génn eh, wax nañ ne génn na àdduna trente-quatrième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne trente-deuxième année la ne Seydina Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu moo ko moo ko moo ko jullee ca Madina waaye gisoon nañ ne amaan na li gën a wér mooy du loolu mooy cinquante et unième année ci la génn àdduna ndax lan ndax sax na ne woor na pendant quarante ans ginnaaw bi fi yenent bi sallallahu alayhi wasallam jógee avant yenent bi di fi daan wóor lu bari mais bi depuis yenent bi jógee fi sallallahu alayhi wasallam maanaam làqu woor na quarante ans yu tegaloo yoo xam ne dogu ci dogu ci dara lu dul euh, Tabaski Korite te loolu buñ ko bu xoolee dañuy gis ne te yenent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn àdduna fukkee lu fa at ak benn ginnaaw gàddaay yenent bi sallallahu alayhi wasallam Euh, maanaam ci fukkeelu at beeg benn bi ci la génn àdduna kon dañuy xam ne ah, euh, kon maanaam cinquante et unième année la beneen bi ci des euh, comme ni ñu ko gisee woon mooy Ubaydullah ibnu Abdullah ibnu Utbata ibnu Mas'ud moom ci boppam nettali na ne gis na ko te moom fi ay trente quatrième année trente deuxième moom mënu ko mu loolu mënul woon ne su fekkonte ne ci la génn àdduna kon loolu yëpp day wane ne amaan na loolu moom mooy li gën a wér insha allahu Euh, mu ngi génn maanaam moom nag ci ay ay euh, xadisam maanaam ci diggante ñaar fukki xadis la ak nangam maanaam fan fanweeri xadis ci xadis yenn saa saam ci saxeex yi ba saxeex ñaari saxeex yépp ñaari xadis la ci am euh, imam al buxaari benn xadis la wéetoo imam muslim wéetoo benn xadis yi si xadis sayidna abu talha radiallahu taala anhu mu nee na xultu ma ne nee na nee na kon nee na sayidna anas radiallahu anhu nee na yenente bi salaa salaam ne ma ah xanaa abu talha yabal dégg munako mana qultu munako naam waaw waaw moma yabal fa qala munako li taamin ngir eh, ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir ñam manam ngir ñama tax mu yabal qultu neena munako naam waaw fa qala munako liman maahu fa qala yeneen bi liman ñel nga xamne maahu ño ando nak moom ko mu jóg leen dégg eh, manam day wane day day day wane ni maanaam kon yabal nit maanaam benn lay lay bu njëkk moom mooy day wane ni eh, yóbbu maanaam invitation yi loola lu baax la ndax maanaam nga gis ne nit ñi dañ daan invité yonent bi sallallahu alayhi wa gisoon nañ ko ci xadis sayyidat um ne eh, moom bi ko sayyidat um sulaym radiyallahu anha eh, wala maamam mulayka maamu anas radiyallahu anhu bi mu ko mulaykat bi mu ko yónnee yabal ko ko loolu moom mooy benn maanaam loolu gis nañ ko gis nañ ko fii tamit dinañ ko gis ci yeneen xadis incha allah maanaam loolu kon benn la ñaareel bi ci des bi muy wane moom mooy ne bu ñu invité nit dana dagan bu xamee ne keneen ka ah, keneen maanaam te fa mu jëm kooka de ah, du ko déranger maanaam dana da ci moom bu amee ku mu àndal te xam na ne ñam moo fa ne dana doy te kooka du déranger kooka loolu boobaa dana dagan mu yóbbaale ko ndax xam moom rek lañ invité. waaye ñi nekkoon ak moom ci jàkka ji dina ko nañ jóg dem nañ leen dem loolu beneen bi ci des moom mooy dagan na euh, ñu nga maanaam nga ànd ak nit ci ñam ngoo xamante ne lu tuuti la maanaam ñam bu tuuti invitation nag bi nga xamante ne mooy bii du woon walima du woon euh, du woon nit ku takk soxna du woon céetal kon dina li day wane tamit ne invité ci lu dul céetal it dagan na euh, te it ci sunna la bokk comme niñ ko gisee woon tam bañ ca tollee ci xadis boobu beneen bi ci des moom mooy dañ ciy jàngee ne euh, maanaam barke bu mag bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam amee ngir ne moom ba muy dem loolu attention du ñoo def loolu maanaam tey mën naa ni comme voilà may may dem ne ah, man kat tey kat sëñ Khalid moomu invité ma ne ah waaw xaaral nañ demaale waay genre yooyu loolu mën naa ne ngir ne man ak moom kese la ñooy dem te xam naa ni du ko déranger te amul problème waaye fi may bañee fi mu fi fi fi fi muy amee problème mooy tey bu ma leenoon ñun ñëpp koy nañ demaale maanaam ndax ba muy sóor amal na sóoraale ñu woon ñun ñëpp waaye lii li tax yeneen bi def ko sallallahu alayhi mooy xam gi mu xam ne ci barkeem ñam gi nay bëri maanaam bu tuutee it ñoom bu ñu toogee dana doy maanaam loolu xam gi mu ko xam moo tax mu ne nañ dem ñun ñëpp waaye bu doon bu doon bu doon ne moo ñeneen maanaam bu doon keneen du ko sañ keneen ku en tout cas ku xamul barke boobu ci moom du ko du ko sañ waaw dégg nga te loolu kon dafay bokk lool ci li ñu tuddee alaamatu nubuwwa maanaam mandarga yi wane ne ab yonent la sallallahu alayhi wa sallam mooy barke bu rëy boobu nekk ci moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na fan talaq moo tax mu daal di jóg dem wan talaqtu nee na ma nit ma dem bay da ay diim ci seen biir maanaam ma nekk ci seen biir rek ñu nit ñu dem <laughs> ñun ñëpp ñu dem dégg nga Euh, kon li tax imam al-Bukhari kon rahimahullahu taala indi xadis bi moom mooy ne dagan bi mu dagan ñu mën a euh, invité nit ki ba pare ñëw ci jàkk ji invité ko loolu kon ci kaw loolu mooy bu ma teseeg nit tey ci jàkk ji ma ni ko tey maa la invité loolu dagan na te du doon nekk ci waxu caaxaan maanaam loolu moom moo tax liñ naan waxu caaxaan yi la ñuy tere ci jàkk ji ak waxi àdduna fokk ñu déterminer ko maanaam du lépp loo leen waxtaane rek ñu ne eh, waxi àdduna kenn ko wax ci jàkk ji déedéet tey par exemple bu fekkoonte ne dama la doon laaj mbir moo xam naan ana diw mbaa mi ngi ci jàmm maam di laaj nit ki ndax wér gu yaram ndax wér na ndax tane na loolu du nekk waxu caaxaan bu fekkente ne dama lay laaj loo xamante ne masalan tey dafa war a am solo ci suñu mbir ci sa ci ci sa maam ni nga xamante ne noonu ngay sa dund loolu du nekk waxi caaxaan fi mu nekkee waxi caaxaan nag mooy tey buñ bëggoon a waxtaane waaye yéen eh, gaa kii maanaam di waxtaanee li télé bi di wane film bi wala Euh, ni ni ni bi di demee ak yu mel noonu loolu moom dëgg waxi caaxaan lay daal di doon ak wax yu nuróo wax yooyu la yooyu waxi caaxaan la ak waxi àdduna maanaam waxi àdduna ndax dafa am loo xamante ne yëfi àdduna la yëfi yi kese loolu la ñuy tere waaye loo xamante ne mbiru du mbiru àdduna yi kese loolu du duñ ko tere xam ngeen ni ñam doon donte mbiru àdduna la mais mbiru àdduna yi kese ndax nit ki bu lekkut du mën a taxaw ba jaamu yàlla dégg kon euh manam comme niko baye ni xamee sa bu defu dara du taxaw de nga lolu mo moy hadith bi kon imam al Buxaari eh, rahimahullah taala indiwaat xadis numéro numéro trois mille cinq cent soixante-dix-huit cinq mille cent soixante-trois cinq mille trois cent quatre-vingt-un cinq mille quatre cent cinquante ak six mille six cent quatre-vingts imaamu Maalik ah eh, rahimahullah indi na ko xadis numéro deux mille six cent quatre-vingt-quatre imaamu Muslim indi ko xadis numéro mille ak deux mille quarante deux yoon la euh, ko indi imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 3218 ak 3630 imam an-Nasa'i na ko xadis numéro 3387 imam ibn Maaja na ko xadis numéro 3342 imam Ahmad ibn Hanbal na ko xadis numéro 12491 12669 13283 ak 13427 imam kon waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ suñu xadis bi moom des imam ibn imam abu dawud rahimahullahu taala mu Babul Qada'i Buntuk buntu eh, Mana manam di tëral ate wal li'an ak rëbboo fil masjid ci jàkka ji bayna rajuli eh, ma bayna rijaali digeunte gor ñu won nisaa Mana eh, ak jigen ni manam bat bi nak nga xamante ne moom mooy wax ne digeunte gor ñi jigen ñi ci riwayatul mustamli la manam du ñom ñep ñom ñoko ñoko wax waye Euh, almustamli rahimahullahu taala moom moo ko indi ci riwaayam maanaam li nga xamante ne kon moom lay leeral fii moom mooy kon ne dana dagan ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy julli maanaam nii imaam bi mu tëral ay atte ci euh, biir jàkka ji maanaam mooy jàkka ji su fekkente ne dafa am ñaari jullit ñoo xam te ne dafa am lu dox seen ñu ñëw ci imaam bi mu toog tëral bi ci biir jàkka ji comme ni nga xam ne noonu la daganee ñu mayee ci jàkka ji ñu mayee sëy ci takk sëy ci jàkka ji mm-hmm. xam ngeen ni léeg-léeg awaam yi sax dem nañ ba jàpp ne Euh, rawatina ci réew wolof yi ne takk sëy faaw ci jàkk lañ koy defee fekk takk sëy ak jàkk jotewuñ dara ni mu daganee ñu takk sëy ci jàkk ji noonu la daganee ñu def leneen yoo xamante ne luy jariñ nit jullit la ci biir jàkk ji masalan tey même recrutement mën nañ koo defee ci jàkk ji maanaam ah gars yi kaay leen da ngeen a bëgg a liggéey yi nga am nañ ne wacca ñëwal diw yow ñëwal diw yow ñëwal diw kaay damaa bëgg ñu dem ngeen ma jox leen liggéey sax nga am seen mbiri àdduna baax seen àllaaxira jag dégg nga ah loolu yooyu yëpp kon dana dagan ci jàkka ji amma al-li'aan moom mooy rëbboo gi nga xamante ne moom la ñuy rëbboo li nga xamante ne moom moo tax ñuy wax nag mooy comme li alquran nana walladina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum arbaatu shuhadaa illa an wala walam yakun lahum shuhadaa illa anfusahum fa shahaadatu ahadihim arbaa shahaadatin billahi innahu la min as-saadiqin wal xaamisatu an la'natullahi alayha alayhi in kaana min al-kaadibin maanaam ne rëbboo mu fekk mooy lan mooy su fekkente ne dafa am benn waay boo xamante ne loolu mooy li'aan daan ci ñëw am na kitaabul li'aan euh, incha allah ci saxee bi mais li'aan mooy lan mooy bu fekkente ne dafa am benn waay boo xamante ne dafa ñëw li soxnaam xam ngeen nit ki bu ñëwee ne euh, gis naa ñaari nit ñuy njaaloo dañ koy wutloo ñeenti seede yu bokkut fañ jógee yógoowut waaye euh, ñoo xamante ne ñoom dañuy ñëw kenn ku nekk ñëw daan ne gis affaire bi gis naa nja maanaam bu waxee ni dama leen a gis ñu sàngu du dox waxee ni dama leen a gis ñu ñu ñu ñu euh, kenn ñu ñu kenn ku ci nekk téye sa morom ak yu mel noonu yëpp du doy lay doy mooy man gis naa maanaam ni ni ni ni ñaari njong yi du duggantee maanaam fekk waxul loolu mbir mi du du doy te loolu war na ci indi yeneen ñeenti nit ñu ñu wax la même chose. maanaam ñoo xamante ne duñ bokk fañ jógee moo tax am na boroom xam-xam yoo xam ne rahmatullahi nee na ñun li ñu gis euh, ba ba jamono jii ñu toll maanaam euh, euh, ñoom seeni jamono fàttalikoguñu yëguguñu ci histoire fu ak ku ñu ku ñu ku ñu dóor ay yar wala boog koo xamante ne teg nañ ko daanu njaaloo te la tax la tax moom mooy ay seede ñoo daje waaw ngir jafe gi mu jafe mais nak man na ne ndax bu mën fon ne alxuraan du ko wax man na ne deug nga euh, te jamono sahaba yi wala jamono Seydina umar radiyallahu taala amna ñu ci dóoroon ño xamantene lolo taxon te ñooñu demoon nak ba man ñet ñentel bi mo manke ñu door leen ñom ñom ñu door leen ngir tuumal gi ñu tuumal ngor voilà ñom ñu door leen 80 vingts coups wa waaye waaye <laughs> euh, kii wuñu te saxaaba yi am na ñu ci bokkoon gisoon nañ ko naa Abu Bakra radiyallahu anhu ci ñooñu la bokkoon ci ñu ñu dóorul yar yi ci la bokkoon te loolu euh, euh, la loolu te moom fekke ndax gis ne liñ mën a xam mooy ne saxaaba yu mag yooyu radiyallahu anhu mooy gis nañ loolu mën nañ koo xam mais ko matuñu léegi nag dañ leen di ñoom dañ leen di dóor quatre-vingts coups mbir mi day wëlbati seen kaw loolu itam day daal di di siyaade ñay seede mm-hmm. ak yeneen ak yeneen maanaam comme quoi yàlla ni mu borom bi subhaanahu wa taala ni mu bëggee sutura mbir mi te même ki njaaroo ñëw borom su yeneen bi saa ko yàlla suturaal na la tey nga suturaal sa bopp maanaam comme quoi loolu moom mooy cosaan waaye nag bu demee nag ba mbir mi àtte bi war a tegu ci nit ñëpp day tegu ci ñoom waaye bu fekkente ne nag nit ki dafa nekk koo xamante ne moom soxnaam la wax ne moom la gis wala soxna si ne jëkk boroom këram la gis ñu muy njaaloo kooku buñ nekkoon faw nga indi ñeenti seede yi te du ko mën a indi day daal di nekk benn problème bu rëy. day daan nekk quand benn problème bu rëy rëy ngir ne lien bi nga xam ne moom la nit ki am ak soxna si bokkul ak beneen lien te nit ki bu gisee ay boppam di njaaloo ni mu koy mettee ak ni mu koy affecté maanaam ni muy nekkee amee jeexital ci moom bokkul ak tey bu doon keneen la loolu moom moo tax charia indi beneen alternative ci mbir mi du ne ko rek foog nga seede mbir mi déedéet waaye loolu niñ ko mayee diggante nit ki ak soxnaam ah, ah loolu qaa'ida bi ci dox mooy maa xaraja an il qiyaas fa xayruhu alayhi laa yonqaas loolu an il lépp lu génn ci ak qiyaas maanaam di nattale di natt di natt di natt fa xayruhu alayhi laa yonqaas kenn du ko atte kenn du ko qiyaas ci leneen lu bokkut ak loolu maanaam tey mooy lan mooy mbir mi dafa génn ci qiyaas maanaam mooy lii cosaan mooy soo nee gis naa nit mu jaaloo da ngay indi ñeenti seede ak ku mën a doon waaye bu dee soxna si la mbir mi ni mu mel moo tax day génn ci xiyaas comme nag dafa génn ci xiyaas duñ ko mën a xiyaase ci keneen maanaam tey mënoo wax ne tamit kii sama doom la wala sama freer la wala sama sœur la wala sama mbokk la wala leneen la moo tax même nit ki bu ne sama baay la wala sama yaay la sax du loolu du doy faw mu indi ñeenti seede soxnaam rek lañ ko may mu bañ a nit ñeenti seede ñëw taxaw ñu def li aan lu tax ndax qaayida bi maa xaraja an il qiyaas fa gayruhu alayhi laa yunqas mi ngi mel ni tey euh, comme euh, julli gi nga xamante ne moom la ñuy tuddee salaatu tasbix xam nga salaatu tasbix mënu koo qiyaas ci beneen julli maanaam mënu koo qiyaas ci beneen xeetu julli moom benn façon julli boobu rek la mooy mooy loolu du àtte qaayida boobu moo ciy dox comme lu demee nekke tukki ñu wàññi loolu julli nga tukki mënoo koo xiyaas ci damaa feebar kon damay wàññi sama julli wala damaa sonn tey liggéey bi coono gi ma ci daj bokkut ak ni ma daan daj ba may ba ma ba ma tukkee kon xëy na maanaam comme mbir mi yegg na fii kon nañ danañ ma wàññi may may dajale julli ba pare wàññi ko loolu du mën a nekk lu tax ndax tukki wàññi julli gi ñuy wàññi ci tukki ak boole googu maanaam surtout wàññi gi dafa génn ci xiyaas te lu génn ci xiyaas mëneefu ko xiyaasee ci kaw leneen لول موي ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص فوالا في تامت دا فا ген مبير مي دا فا ген سي قياس موتاخ القران ني كون ليغا خامتاني موم بوب مبير موم نيمي ديف كوك نيمي ديف موي داي داي داي داي سيري داني تاخاو ني سيدو لوكو مو ني ا مرام نيتي سيدي ني اشهد بالله اني من الصادقين واتنا تي يالا ني مان تي ني دغ ني لا بوك ba pare daal di teg ne daal ne ci juróomeel ba juróomeel ba mu ne laanatullahi alayhi in kaana min alkaasibiin ah bu fekkente ne maanaam mu daal di ne seede ne yàlla na yàlla rëbb yàlla kon dal ci ci kaw kii wax muy moom su fekkente ne li li mu wax du dëgg ne ndaw si maa ko gis muy njaaloo dégg bu boobaa wa mu ne wa yadra'u an an hal azaba an tashhada arbaa shahadatin billahi innahu la min alkaadibina wal xaamisat an xadaba allahu in kaana min alsaadiqina subhaanallah mu ne bu boobaa dañ naan ndaw si ah kon de yow wareef na la dañ lay daal di teg daan bi nga xam ne moom lañ ñuy teg képp ku njaaloo te am borom kër te mooy rek ak wala góor bu njaaloo te du am borom kër kese mës am boroom kër ba jotaay ba wéetu ak moom wala mës am soxna ba wéetu ak moom loolu la maanaam bu dee nit ki dafa marié wu te mës a consommer mariage bi kooku du dugg ci àtte bi mais ki ciy dugg mooy ci mës a marié wu ba noppi ba ba consommer mariage bi kooku moom même bu dee tas na dem jaaloo bu bu bu ñu seedee ci moom loolu ba jàpp ko boobaa. dañ koy teg daan bi beneen bi ci des mooy nit ki mën naa njaaloo ne man day man ak diw ñoo doon njaaloo man maa doon njaaloo te diw laa doon njaaloo bu ñuy teg daan bi diw moom kenn du ko too teg daan bi ah moom lañuy teg daan bi moom mi ne man maa njaaloo loolu tamit day dox ci ku ne woon man man ak diw ñoo am dem sàcc ji nangam wala mak diw diw sangam yéen a ngi fàttali meurtre bi amoon bërëb sangam ak nangam ne wa man won man ak diw ñoo àndoon deng bu bo wa ji rek lañu tek teg deng euh kon te imagine njaaloo xam ngeen ni kenn du ko defal boppam moom kese maanaam njaaloo dañ manam faaw mu am kenen ko koy defal and ak lolu and ak loolu boo dee damaa njaaloo nga seede ko sa kaw yow dong la ñuy inquiété kenn du inquiéter ki ci dess waaw <laughs> moo tax moo tax euh, euh, euh, <laughs> moo tax ki iqrar maanaam mooy aveu wax ne maa def naa nangam mooy dalil mooy preuve bi gën a mag ci preuve yi ànd ak li mu nekkee preuve bi gën a mag ci preuve yi du jalgati maanaam du am effet ci keneen aveu ci ci ki ko def rek lay am effet du am effet ci ki ci des ànd ak muy preuve bi gën mag ci preuve yi <laughs> voilà dégg nga moom mooy kon euh, bu boobaa kon bu dee ndaw si nag nee na ah man it damay waat ñu ne ko ëcc kon waatal mu ne mu waat ne ñeenti waat daal arba ashahadati billahi ne innahu min alkaasibina ne ne ah, euh, euh, ne innahu daal ne ashhadu billahi innahu la min al-kaazibin waat naa ci yalla ne ki lim wax du deug manam wax ko ñent yoon mu na way wal khamisatu ñent juromel moy an xadaba allah alayha in kana min as sadiqin yalla na merum yalla dal ci kawm su fekke ki lim wax deug la manam ci mom mom ci lool moy juromel kee daf ni rubum yalla ki fi mu indi merum yalla waaye euh, loolu mooy le aan bu boobaa ñoom ñaar ñëpp ñu bàyyi leen waaye bu boobaa ci saa si la sëy bi di firéeku bu loolu xësee am ci saa si la sëy bi di firéeku te dootuñu mën a takkanteeti abadan léegi nag bu fekkente ne nit ki daf koo def am ca doom doom jooja mu am doom jooja dañ koy askanalee maanaam nit ki tey bu ne sama jabar jii doom jii mu jur juruma bu boobaa mooy kon daa njaaloo bu boobaa su fekkente ne moom nanguwul liaan bi dañ koy dóor juróom fukki yar juróom ñett fukki yar quatre-vingts lañ koy dóor moom su fekkente ne nangu na liaan duñ ko dóor juróom ñett fukki yar waaye Euh, bu ñu defee li aan ba nopp maamee bu dee nangu na nangu na dóor ko juróom-ñett fukki yar yi te nanguwut a def li aan bi moom sëy ba du tas loola du tas sëy bi waaye bu dee suñ jamono moom yaakaar naa ne sëy ba dina tas maanaam duñ ko dóor waaye sëy ba <laughs> daañ ko dóor ba pare moom astaghfirullah daañ ko dóor ba pare te sëy tas waaye au moins moom xëy na li mu mën a yaakaar mooy mën a jotaat ci ndaw si benn yoone maanaam xëy na dem ba toog ba mbir mi sedd mu dem ne damaa juum woon nangam nangam jéem a wax da dajalewaat mbokk yi ñu <laughs> négocier ba mu jotaat ndaw si xëy na loolu la man waaye euh, bu fekkente ne nag <laughs> dafa dafa da da da dafa ne day dem li aan bañ def li aan bi ba noppi bañ def li aan ah, bi léegi nag jeex na léegi jeex na bu boobaa. doom jooja du nekk tamit doomu njaaloo waaye nag santu yaay ji lay jël maanaam yaay jee ko jur moom lañ koy askanale dégg nga kon euh, loolu moom mooy àtte euh, googu loolu nag lay wax ne mën naa maanaam mëneef na koo defee ci jàkk ji maanaam mu def zikrul am baadal zikru xaas ba àdal am mu tudd généralité ba pare daal di tudd particularité mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaabi ilayhi xaddasana yaxya moom mooy yaxya ibnu muusa ibnu abdi rabbihi alxaddaani rahimahullahu taala abu zakariya xatt wala boog ibnu xatt alxaddaani albulxi moom mooy dàkkante la muy rahimahullahu taala Euh, mu ngi génn àdduna am na deux cent quarante am na deux cent quarante am na deux cent trente yi ñoom ne ginnaaw gàddaay wa alihi wa sallam waxoon nañ na ne imam ibnu sakan rahimahullahu taala dafa ne woon fu imam al waxee ne xaddasanaa yaxya ibnu muusa bi la ah albulxi alxadani rahimahullahu taala Euh, moom imam al-Bukhari rek moom imam al-Bukhari moo soloo ci moom ak Abu Dawud at-Tirmidhi ak an-Nasa'i alayhima euh, kon moom tuddoon nañu ko euh, rahimahullahu taala mu ne qaala mu ne xadd axbarana Abdurrazaq te as-San'aani rahimahullahu taala te moom mooy imam bu màgg boobu borom musannaf bi Abdurrazaq ibnu Hammaam ibnu Naafi al-Himyari al-San'aani mooy Abu Bakar mooy dàqantalam Euh, rahimahullahu taala mu ngi euh, génn àdduna deux cent onzième année jotaay bi wees dañ juumoon ci atam ndax Yaxya bin Saïd al-Qattan moo génn na deux cent quarante-huit Abdourazaq moom mi ngi génn àdduna deux cent onzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala axbarana ibnu Jurayj te moom mooy kenn ci ñu tuddoon sànq mooy Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibnu Jurayj al-Qurashi rahimahullah di imaamu waa Makka woxoon nañ ko comme ki sank ci beuyit biñ waxon bi nga xamantene mom moom la ñu waxoon li imam as-Suyuti rahimahullah wax ne ci ñoom ñooy njëkk bind téere yi xadis bu naan kam nu juree jën wa Hushaym min Malikin Malikin ah wa Ma'marin wa waladin mubarakin maanaam ibnu Jurayj bi mooy Abdul Malik ibnu Jurayj Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibnu Jurayj maanaam dañ koy wax ibnu Jurayj te fekk Jurayj maamam la waaye du baayam Euh, abul walid mooy dàqantal wala boo ko abu xaalid al qurashi rahimahullahu taala maanaam ruum yi la ci cosaan maanaam waa ruum la ci cosaan byzantin yi moo ah dégg nga euh, mi ngi génn àdduna cent cinquantième année gàddaay bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta comme imam abdurrazaq bi weesu mu ne qaala nee na axbarani ibnu shihab te moom ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañ tuddoon sànq doon wax naan imaamu Malik moom ah, mokk nit ñi ko gën a marqué moom ak imaam Ibnu Shihab ak Naafi ñoom ñaar rahmatullahi alayhim mu ne an Sahl ibnu Saadin te moom mooy Sahl ibnu Saadin as-Saaidi rahimahu radiyallahu taala anhu Abul Abbas mooy dàkkantal wala boog Abu Yaxya moom ak moom ak. Ah, Abul Abbas moom ak Seydina Abdullah ibn Abbas donc ñoom ñaar ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñoo am dàkkantal moom. mi ngi ganee at mi ngi génn àdduna quatre-vingt-huitième année euh, ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mi ngi ganee àdduna juróomi at laata gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon daanaka maanaam dugg na quatre-vingt-treize ans waaw la euh, génn euh, àdduna radiyallahu taala anhu moom nag Euh, mi ngi solo cent maanaam cent trente-huit xadis lañ solo ci moom rahimahullah imaam al-Buxaari trente-neuf la ci tudd euh, rahimahu radiyallahu taala anhu euh, mu anna rajulan nee am na benn waay boo xam ne xaala nee na yaa rasulallah e ndaw yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ara ayta xanaa xoolo mu ne xanaa gisoo mu ne xoolal tey rajulan benn waay boo xam ne wajada doo fekk ma am raatihi ak soxnaam bu fekkee ak ak waaw bu fekkee nag imraati ak jabaram maanaam ak soxnaam rajulan benn waay ayaqtuluhu ndax da koy rey bu fekkee benn <laughs> ah, maanaam <laughs> ah, ndax benn waay bu fekkee bu fekkee am jabaram maanaam mu fekk mu fekk jabar ji nekk keneen ah, ndax da koy rey maanaam li muy tekki mooy ndax da koo fekk da koo fekk muy jaaloo te mu leer ko ne ngay jaaloo ndax day rey day rey jabar ji wala day rey waa ji man yaqtuluhu ndax day rey waa ji <laughs> loolu waaw méthode méthode forte <laughs> loolu lay def ya dégg nga mu ne mu ne fatalaa ana ñu daal di rëbboo fil masjid di ci jàkka ji wa ana fekk man shaahidun maa ngi seede maanaam li bëgg a wax mooy yeneen bi saa sam dana ko déedéet du ko rey li ñuy mën a def kay no maanaam nit ki mënta dem rey nit parce que loolu mënta ne maanaam mënoo fekk même bu ñu nee ku rey nit dañ lay rey nga gis ku rey nit du rey rek dañuy rey nit dañuy gis ku rey nit rek nga dem rey ko de déedéet autorité bi mooy def loolu. voilà autorité publique mooy def loolu maanaam mooy mooy def ku rey nit moom mooy mën a exécuter peine yi. waa ku sàcc dañuy dagg sa loxo ku njaaloo dañ lay dóor juróom dañ lay dóor téeméer yar ak xeet yooy loolu du fekk ne waaye dam jàll ko gars yi dajal waaye di leen waa ji ñu teg ñu dóor du mbir bi du demee noonu de autorité publique mooy tëral àtte bi ginnaaw ba mbir ma saxee ci anam goo xamante ne duñ ci sikki sàkka saa yu sikki amee ñu daal di dindi àtte moom mooy li nga xamante ne moom mu la àtte yi tegoo dégg nga moom loolu la maanaam kon léegi moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kon dañu ko déedéet duñ loolu du am léegi nag ñu daal di ñëw ne kon lu ñuy def mu ne xanaa da ngeen di def am lii mooy àtte bi moo tax aaya bi wàcc aaya yi doon tudd sànq ci sooratu nuur aaya yooyu lii moom moo ko taxoon a wàcc dégg nga fatalaa anaa ñu daal di rëbboo fil masjidi ci jàkka ji mu ne wa ana shahidun fekk man ma fekke ko maanaam kon mooy wane ne atte dañ koy tëral ci biir jàkka ji niki noonu ay masala dañ koy laajte ci biir jàkka ji naka noonu euh, noonu la ñuy mën a tëralee maanaam maanaam li aan ba ci li aan nga xam ne rëbboo la lool dañ koy mën a def ci jàkka ji maanaam moom mooy bu fekkee ne atte la maanaam nit ñi plaidoirie yi am ci biir tribunal bi te mooy jàkka ji loolu mën naa nekk maanaam ndax xam nga plaidoirie kii ne ku ne day wax li ngeen jote ku ne day wax li mu gis ku ne day wax li xew loolu mën naa nekk mëneef na koo defee ci biir jàkka ji loolu la ci imam al-Bukhari nam ci buntu bi rahimahullahu taala xadis euh, bi euh, imam al-Bukhari dina ko daal xadis numéro quatre mille sept cent cent quarante cinq mille deux cent cent huit 6854 7166 ak 7304 imam malik moom moo comme niñ ko gisee ci càllale googu moom indi na ko numéro 1642 imaamu muslim xadis numéro 1492 imam abu Daud xadis numéro 2245 imam an an nasaayi xadis numéro 3402 imam ahmad ibn hanbal hadis numéro 22851 22853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 imaam Ibn Shihab al-Zuhri hmm. ak imaam Malik hmm. nekk naka ñoom ñaar ku ci nekk mën a njëkkee bind benn téere li ñu waxoon ci commencement bi hmm. d'accord maanaam imaamu az-Zuhri moo njëkk a bind téere ci xadis ci lu ñu doyal moo xam maanaam amul ordre ci xadis yi dafa dajale rek ay xadis yu mu dajale mu nekk ab téere ñu dajale ko loolu tax mu ne awwalu jaami al xadiis wal asar ki njëkk a dajale ay xadiis yi ak jeexitalu nit ñu mag mag ñu baax ne radiyallahu anhum mooy ibnu Shihab al imam az-Zuhri rahimahullah amirun lahu Omar Seydina Omar ibnu Abdul Aziz radiyallahu anhu moo ko digal waaye mu te wa awwalul jaami lil abwaab bi ki nga xam ne nag ñoom ñoo njëkk a dajale tiir yi mais nag toftale ko ci ay buntu maanaam agencé ko. par ay chapitre parce que ñoom imam az-Zuhri bi ñu commencé bind ñoom daanuñu dajale chapitre yi dañ doon bind xadis rek di dajale teg amul woon benn ordre du ci tur yi du ci euh, sujet yi muy traité du ci dara maanaam xadis bi ko amal solo dajale na lañ indi la teg waaye ki njëkk dajale xadis yi nag ba pare teg ko mu nekk ay bunt yu leer ñu ne ah buntu bi comme boo xoolee Muwatta bu imam Malik day ñëw wax ci ba maanaam kitaabu mawaaqitu salaat wala wuqutu salaat kitaabu wuqutu salaat buntu waxtu julli yi après mu indi kitaabu tahaar après mu indi kitaabu salaat et cetera noonu la ko toftale loolu nga xam ne daa ay buntu yu leer loolu moom mooy ah, <coughs> moom mooy ne mooy ne ñooñu ñoom ñoo ko njëkk bind ci ñu anam googu mu ne nag Euh, imam Malik lañ ci gën a ràññee waaye imam As-Suyuti comme euh, ci cosaanam aussi mooy xadis euh, kii téere mooy alfiyatu al iraqi xaafis al muqaddimatu ibnu salah rahimahullah abu amr ibnu salah rahimahullah ñoom ñëpp dañoo xaw a am dañu dañoo nuancé mbir mi imam Malik amaan na moo ko njëkk def mais dañu nuance mbir mi moo tax mu ne jamaa jamaatun fil asri zuqtiraab mbooloo leen moo xamante ni ci jamono ji ñoom ñoo xaw a jegewantoo jamono ñoo xaw a jegewantoo jamono ji ñu ko bindee looloo tax ka ku njëkk bind mu dese ñoo leer lool waaye donte jàpp nañ ni amaan na imam Malik la mu ne comme kam nu juree ku mel ni al imam ibnu Jurayj rahimahullah ca Makka wa Hushaym mooy Hushaym ibnu al Wasiti ca Wasit Malik mooy imaamu Maalik bi ca Madinatul Munawwara wa a Maamar ibn Rashid ca Yaman wa waladul Mubaarak wa Abdullah na Mubaarak ah, ca Marwa ak ñeneen ku mel ne al imaam al Awzaa'i rahmatullahi alayhi ca Sham ak ñeneen kon loolu moom Lays ibn Sa'd rahimahullah ca Misra et cetera maanaam ñooñu jamono yooyu loolu lay loolu lay wax nii kon loolu yaakaar naa maanaam euh, nis bii la maanaam euh, euh, nis bi mooy relatif voilà voilà ci luñu doyal kee la bu relativement ki la maanaam relatif à euh, voilà à l'agencement de voilà ci un chapitre ou euh, voilà ci leneen lool mom la wallahu taala deuxième question rek mu ne euh, ci juróomi sëriñu imam Malik ñu tudd sànq euh amna imam Ibn Shihab imam Nafi pour coran bi hmm. nekkoon naa fi pour xadis euh, yi léegi ñeneen ñaar ñu la doon laajte. Ibnu Hurmus. ak Rabia Ibnu Abi Abdurahman ñoom ñaar ci fiq la. ci fiq mais mais mais amul woon kese mais dañ dañ doon wax rek ne ñooñu ñoo gën a mar ñoo ko gën a marqué. voilà Rabia ak Ibnu Abi Abdurahman mooy ki ko jëkk jàngal ci moom la njëkk a dem ba mu demee ci moom dañu ko bi fekk mi ngi am biir. Euh, euh, nekk gone juróom-ñeenti at la amul yaayam ñoo solal ko yére yi solal ko kii bi door beeg yooyu jël ko mbaxana parfumé ko ne ko demal ci rabia nga jël ci moom nga dem nga toog ci wetam nga xool ko nga jàngee ci moom teggin yi d'abord laata ngay jël sax xam-xamam bi mu ñëwee moo tax rabia ne ko yow de xale bi da mooy fàttali euh, daaw heure bi mu ne ko daaw heure bi am na benn xale boo xamante ne ni yow la moo tax moom moo koy fàttali ko moo tax nga ma koy fàttali xale boobu bi mu ñëwee dafa doon sàkku xam-xam waaye borom subhaanahu wa dafa def euh, maanaam xale boobu borom xam-xam Madina yëpp dañ koo soppoon waaye nag borom bi dafa def laataa ren jii génn na àdduna génn na àdduna te bis boobu waa borom xam-xam yëpp lañ jàppoon yëpp bàyyi nañ ko ngir dem fekke ji euh, jullee gi rob gi et cetera. mu ne ko waaye ginnaaw gi am na ku ko gént moo tax am ci yeneen riwaaya ci moom ci boppam moo ko gént mu gis ko mu nekk biir àjjana mu ne ko lan la borom subhaanahu wa ta'aala ne borom bi daf maa yëkkati ci maqaama borom xam-xam yu mag yi mu ne ko lu tax mu ne dafa xool sama yéene ji ma amoon maanaam damaa yéene woon ni fekk maa ngi dund dinaa liggéeyal xam-xam dinaa sàkku xam-xam dinaa ci def yitte ak teggin yacca la yamul laaj ba yii ba nga xamante ne mais comme boroom bi moom mayuma jamono temps pour ma mën a àgg foofu waaye terewul bi ma ñëwee daf maa yëkkati ci maqaama ñoom voilà ngir yéene bu mag ni mu amee solo voilà ak teggin yi tamit maanaam loolu ak yeneen ko Rabia ibn Abdurrahman moo tax Rabia taalibu Seydina Anas la radiyallahu anhu voilà kon ci ci moom Ibnu Hurmus moom tamit noonu la meloon ci ci ci rigueur boobu ak teggin yi et cetera euh, mais ñu bëri jàngal nañ ko voilà. Euh, imam Maalik rahimahullah taala comme ni koy gisee ci xadis yi ñu day da ko solo ci càll layu bëri alhamdulilah wallaahu taala alam. troisième question bi mu ne euh, ndax jigéen jigéen ñi. Hmm. ci jamono yonent saa salaam dañ doon def natation. Euh, man loolu loolu xamuma ko. wóoruma. wallaahu taala alam.